jaajëfatee sama gars yi jaajëfatee. Well, hey, hey, hey, aloha and a very good morning, Pride of America Ohana. Maylin, this is Vincent, your cruise director. and in addition to Captain just welcoming you to our beautiful port of call, I want to let you know how you can make your way ashore. The gangway is located deck 3 midship. The easiest way to get there is taking by the midship stairs straight down to deck 3. A couple pieces of information we want to make sure you're aware of whenever you do head to the gangway throughout your time on board. Please always have your stateroom keycard, as well as a valid photo ID upon your return to the ship. Your keycard will scan you in and out, and the port side security will also need a photo ID. If you're on a Norwegian Cruise Line short excursion, please pay attention to the information on your ticket, pre-meeting times, and location. You have a, a, large amount of time to explore this beautiful port of call, as Captain mentioned. You know, it is the second largest island, but it is the most visited island in the Hawaiian Islands chain. So much to see and do because the all-aboard time is not until tomorrow evening at 5.30 p.m. A lot to see and do on board, of course, if you choose to stay on for the first part of the day. I implore you to check your freestyle daily, telling you what's happening, where it's happening, and what time it is happening. It's just at 8 a.m. right now, Coming up at 8.45 is our sign-ups for our Canvas by You, our step-by-step -step painting class that starts at 9. Also at 9 o'clock is our first hula lesson with your Hawaiian ambassador Moana up in Pinks. And at 9.30 our Are You morning trivia in Napa. Some great things throughout the midday and the afternoon from our arts and crafts, some music, live music poolside, another ship tour if you missed out yesterday, and of course, all heading up to an amazing evening on board with our local Hawaiian entertainment. But that's going to be later. In the meantime, whatever you choose to do, I hope you have a phenomenal time here in Kahului. Reminder the all aboard time is tomorrow. The gangway is located deck 3 midship. Once again, this is Vincent, your cruise director, wishing you aloha and many memories to be had in Maui. Mahalo, and as you'll often hear me say, I'll see you when I see you. déglu leen ko. ci événement mars 2021 waxoon nañu Macky Sall bis bu yëkkatee projet. dégg nga pour ne lii la war a def da muy forfaiture da muy avise da muy atteinte à l' état de droit à la démocratie. waaw tant que askan bi dugg bi ne lii bu am. dégg nga askan bi tuuti waaw. donc bu ñu kenn gëmloo nii. waaw. dans la poursuite nañu déglu à travers les procédures judiciaires les procédures judiciaires seront redoutées et seront faites Macky Sall dina def.

Ngagne Demba Touré ba mu demee ci pap Alé Niang il une semaine dafa ne bu fekkee dañu dem tribunal amuñu fa ndam bu boobaa dinañu génn ñu ñu xeex ñu def ay manifestations loolu nag la dem Demba Touré woote à l'opposé de Amadou Ba Amadou Ba ñëpp a ngi koy attaqué Akhenaton nee na Macky Sall lay liggéeyal <coughs> Mollah Morgun nee na liggéeyaloo Macky Sall mais li muy def kenn àndu ci te ngañ Demba ture dafa ñëw li Amadou Ba wax wax moom mu ñëw wax contraire ba. kon Pastef fum nek dafa am division dafa am division parce que ngañ Amadou Ba affaire tribunal rek lañu bëgg gëmlo ak kenn du xex ngañ dem nak dafa woté pour ñëpp Sénégalais yëpp dem <coughs> nu mu tuddati lundi ay dafe buy dem buy dem di jëli parrainage ne Sénégalais yëpp dem loolu lañ doon xaar ci ngañ demu Touré ci wa Pastef pendant des mois kenn ñemewul wax ngañ demu Touré wax na mais j'espère que bi pas du dellu ginaaw mais nañ ko wat ba paré ngeen déglu bu baax limu wax ci judiciaire. dégg nga dégg nga. je renvoie tout le monde au message du président Ousmane Sonko. waaw ci événement mars 2021. dégg nga Macky Sall bis bu yëkkatee projet. waaw pour ne lii la war a def da muy forfaiture da muy avise da muy atteinte à l' état de droit à la démocratie. dëgg la tant que askan bi dugg bi ne lii du am. dégg nga. mu sa arrêté.

maintenir ou rétablir l'ordre public l'ordre public. c'est la république l'ordre public c'est le respect. gars la l'ordre public c'est le le respect du droit. c'est le respect des institutions de justice. aujourd'hui des manifestations des euh, concrètement. rek. inscription bi gën a sacré. waaw. nga xam ne président de la république pour nga jël décision émission bala yëpp. mooy justice. mooy justice. mooy justice waaw. institution judiciaire boobu noonu moom la Macky Sall respecté wu ko. respecté wu ma ko waaw. gannaaw Macky Sall nag nit ñi ne waaw ne léegi mu ko neex lay def ci réew mi. couverture légale wala couverture judiciaire. ci leen live affaire ay citoyen wala justice boo ko def liggéeyu justice la man maa ci exécutif waaw sëgëm léegi lu mu def da koy def léegi de façon délibérée da koy assumer en toute flagrance jaajëf Dado Bey ñu kenn waxati respect des institutions dégg nga bu ñu kenn waxati respect des institutions man loolu mooy liñ ci jàng comme Amadou Ba Pastef léegi concrètement maître lan ngay préconiser sur le plan merci Diallo question bi baax na trop wala yan xeetu gatsa gatsa moom ngay préconiser question bi baax na am na loo xam ne stratégie

am na waaw que mais lii nag ndëgol bi Sonko moo ko war a joxe. dans tous les cinq départements de Dakar. ko joxe kenn du ko topp. Sonko moo war a joxo dëggal bii. waaw. like leen partagé leen waaw. waaw. Amadou Ba. Amadou Bazumba. xeex rek xeex rek la xam. mais na ko wax pour mu gën a leer. waaw parce que Amadou Ba bu jugee wax lii nga njëkk wax lii. mais Juan Branco lan la wax ban pacifiquement waaye yow waaw ñun xeexuñu pacifiquement de pacifiquement duñ si génn de waaw dégg ngeen jaajëf ne fet waaw duñ ko nangu de jaajëf ne fet comme Mali comme waa Mali le stade de la citoyenne civile la situation active stade active. active marche Jambarlo. français en révolution française. révolution. Mali Mali. régime régime militarisé.

mu ci jàng mm-hmm. tubaab mu ci xam-xam. mu ci science. waaw mu ci koom-koom muy dëkk civilisation. dëgg la tey ñëpp commencé digg seen bopp tabax ay réew yoo xam ne c' est des états indépendants. Sénégal dara des ginnaaw yàlla nattoo waaw gars yi doon leen laaj fukki at ak ñaar jël réew mi. partagé leen ñu tamit. accord de pêche yi. mu gën a yaatu contrat pétrolier yi contrat minier yi. Euh, euh, euh, même APE bon na ko bon na ko kii bon na ko bon na ko ratifié. waaw français waaw. lépp mu jël ko ci bëtuwaat tey jii ñu ngi yokk subvention ñu ngi dim subvention bi ci ci énergie bi waaw notamment dans le secteur de l' électricité Sénégal yi fi mu nekk mi ngi wax ay généralité xaar leen mooy jëm ko avance tuuti ma jëm ko avance nga soulevé waat nag conclusion déglu maanaam Ousmane Sonko waroon na saisir yoon bu yàgg ñu ne la foo ko teg nga ne man d' accord naa ne du ñu fiyeeku ko décision bi te yoon nag article L41 moo ne waaw lii c'est un acte administratif boo jël. dëgg nga. à l'encontre amu fi mat mat pacifiquement amu fi. non notifié que ministre

Dicté par l'article 311 du code de procédure pénale n'a pas été, parce que c'est la preuve qui n'a pas été apportée à l'audience. Attendez qu'il ne résulte nullement de la procédure, qui un acte pour le ne de publicité il est vraiment parce que nous sommes en procès civil. nous sommes en procédure civile. dama mat. mobilisation pacifique amoul. procédure pénale. jàmbaarloo rek.

waaw gars yi xaar ma yokk xaar ma yokk ba xam parce que seetaanu ma lépp démb. jaajëf Fatou Ndiaye mu Aly Ngouille Ndiaye. pourquoi installé une commission de distribution il a direction générale des élections dégg nga direction générale direction UDG la e. dafa am beneen sous direction bu fa direction des opérations électorales. dégg waaw. ba léegi installé commission yi. installé bu distribuer les cartes dans une opacité totale. dégg lu la neex la def militaire jëli seen carte mais dans ces conditions là nan la transparence électorale mën a dañuy bàyyi onze janvier fekk ñoom seen carte d' militant jox lañ leen ba mu doy. waaw des ñu lëpp ci mbir da ngay voté dégg nga de. après ñu ne yow est ñii ñii dañoo yab nit ñi. tontu weer Macky Sall Macky Sall ñu ko bàyyee saa yi bu baax xaaral ñu déglu xaaral ma avance tuuti ñu xool lan la waxaat mais man li ma gën a intéressé mooy Ngagne Demba Touré woote na xaaral ma def ko pause tuuti Ngagne Demba Touré li ma ci gën a intéressé mooy woote na. lundi lundi nous ñëpp ñëpp juk dem andak ay ñu direction générale de l'élection DGE ñu jëli parrainage lool waxuma ko feewon nous avons nga waxuma won ne wa Pastef yépp ñom El Malick ñëpp waroon demandoo ba paré peuple bi and ci waxon nako mais Ngagne Demba Touré kessé wax woko du tax nit ñi dëgg Sonko joxewul ndigal

dix bo demee dix fois ngañ dem ko wax de neuf fois yi do am deug bo amé deug ben yon Macky Sall ne du ko appliquer kon kon duñ fi nek pour suivre ay yëf judiciaire loolu la ngañ dem Touré wax te loolu mi ngi koy euh, diriger contre Amadou Ba bi nga xam ñepp ñëpp ngi koy xass axana nee na Amadou Ba Pastef Macky Sall lay liggéeyal nee Amadou Ba Pastef ne do ko bandum Macky Sall lay liggéeyal Amadou Ba bu mu ñu sonal di wax jam jam jam pap ale Niang bu mu ko tek talal micro mu nek di wax ne Macky Sall limu bëgg kenn du ko ko may dafa bëgg xex ak nit ñi dugg na fi genn fi Macky Sall ngañ dem Touré wax na la ko sank jambar lo rek la xam te président Sonko limay calculer mo bari post Facebook bu mu def baax na trop parce que ci bis post Facebook bi dafa ne résister len résister len ndax ci dictature lañ nek man nak ben façon résistance la am moy grève de la faim way fofu le Ousmane Sonko juumee Ousmane Sonko dafa djoum amul ben façon résistance moy grève de la faim grève de la faim amul njëriñ waxon na len ko neefetiti waxon na len grève de la faim au président Sonko amul njëriñ ndax ngañ dama turee gis nga nii commencé wax ba légui déggu len mu wax ci grève de la faim amul njëriñ yéen ñi ba ngeen commencé commenter ba légui laaju len ma Sonko est-ce que mu ngi dund wala mu ngi dee sonn wala sonnul nek na Sénégalais faalé wuñu grève de la faim ñi ngi si di déglu ay Ngaaka Blindé xaw ma ak ay booy nekk fa di clashante wala ñu naan la combat Modou Lo euh, Balla Gaye wala sonkorisé nañ fii sonkorisé nañ fale yooyu ngay dégg wala courant bi yokk na wala dugg na fii génn fii ay ay waxu dof rek rek Ousmane Sonko moo war a jël responsabilité am Ngagne Demba dafa jël responsabilité mu ne na ñëpp génn dem euh, nu mu tuddati euh, gunge ay dafe mais Ngagne Demba loolu c'est un premier pas mais loolu doyul la grève de la faim amul benn sens fu nek ni def nga ko première fois 34 jours est-ce que dafa tax nit ñi génn est-ce que dafa tax nit ñi génn def nga ko leen rek mo ci am sens bang ko defé ci la Macky Sall may jàmm dootula yóbbu sebi xotaan loolu victoire la waaye def nga ko Serigne Mountakha ne la arrêteel nga arrêté waaye ba nga arrêté est-ce que ñum Serigne Mountakha dañ la génne wuñ la loolu tax nga né da ngay continuer

faale wuñu Sonko bokk na wala bokkul balaa Sonko di bokk li ñu gën a jàpp mooy dañ ko war a génne principal te loolu lu yomb la Ousmane Sonko bu joxee ndigal ne jàpp ñi ñu ma jàpp du jàpp dara jàpp Adji Sarr jàpp caaxaan ay fen yu tooy xepp loo xam ne 2021 la xew ñeme woon jàpp 2021 2021 maa la duma ba nga sukk ñaan ñu def discommandement tey nga ñëw nga ne ma ci loolu nga ma jàpp man tok na prison ñaari weer ak genn waa man ñetti weer mais ça c'est est honteux c' honteux que Ousmane Sonko nek ci prison Macky Sall ñetti weer lool ku len ko waxone yéen ku len ko waxone do len ko gëm ndax Macky Sall musul ñeme japp Ousmane Sonko waye instant yi ñuy wax ak yéen ñetti weer bo ci bolé wul bo ci bolé wul 55 jours yi nga xam dafa kaa tëj loolu tamit kasso la waxuma sax 55 jours juróom fukki fan ak juróom yi nga xam ne dañu ko doo génn cité kër góor gi loolu kaso la Macky Sall ñëwaat tegaat si yeneen ñett yoo xam ne dafa na ko doo dem doo dikk te xamuloo kañ ngay génn loolu soo ko war na ko nangu doomu Casamance war na nangu benn xalpulaar bu tekkiwul dara koo xam ne ñun ñoo ko def président ñoo ko ëpp doole ñuus nañ ko ñaari yoon première vague ñuus nañ ko Macky Sall deuxième vague ñu ñuus ko Antoine Diome risqué risqué léegi ñëpp ragal <coughs> Macky Sall war na Ousmane Sonko war na nangu Macky Sall di ko toroxal nii doomu Casamance joolaa kañ la commencé di dellu ginnaaw loolu laa bëgg xam surtout ñaaling Sonko yow sa maam dégg naa façon jaloore bu ne def na ko yow doomu Casamance Afrique ñëpp am espoir ci yow ah nga toog rek di ñu wax ay waxu élection ay waxu parrainage ñun dañoo faale ndey yaay ngeen baal ma faale wu ñu ndey parrainage Sonko bu ñuy wax waxu parrainage ñun faale wu ñu ndey parrainage. ay lettre d'acquiescement nekk ci prison bi di bind di dem ci ay tribunal loolu du cëru Sonko Ousmane Sonko warul nangu Macky Sall o ko jàpp parce que Macky du baayu Sonko Sonko mooy baayu Macky Sall Macky Sall fa kenn faalew ko Sénégal Macky Sall amul mille personnes yu ànd ak moom Sénégal amul ànd bu sincère amul képp ku ànd ak Macky Sall xaalis mooy xaalis ngay wër Macky Sall xam na ne Senegal dañ ko wocc Ousmane Sonko mooy président du senegal waaye nit góor dangay ngay dëggal sa bopp waroo nekk góor sa moroomu góor di la toroxal nga kay nangu <coughs> dafa ñaaw dafa ñaaw ba pare yow ngay xeex ngay xiifal sa bopp ba ndara dee loolu pour lan fan lañ ko teg def nga ko une première fois baax na mais on avance jëlal sa responsabilité président Sonko jëlal sa responsabilité nga woote gatsa gatsa ñun faalewuñu xalif général wuñu France mais France léegi dañ ko may jàmm mais Auchan yi heure bi waroon na fekk muy tàkk toto yi waroon na tàkk il faut que ñu génnewaat suñu stratégie bu njëkk ba bu dee bugg leen rey APR bugg leen Ray, leen rey Macky Sall ne France nous ñooy doomeeraam yi ndax France 24 ñoom ñoo piégé Ousmane Sonko di ko wax jàmm jàmm ba muy def ba 2 millions Ousmane Sonko prêté le flanc comme li ko kii di waxee euh, Baye Ndiaye ñu profité daal di ko il faut que ñu à faire pression France.

wax rek lay def amul benn suivi balaa may dee mu naan nit ki léegi dégg naa ko sànq mu ne nit ki ñu la saxalee ah li ci des yaa yaa war a sàqame yaa war a yaa war a wan sénégalais yi lay waxal ah pour moom dafa mel ne ñun ñun daal ñoo bañ a xeex séné nit ki boo ko saxalee moo war a sàqame moo war a euh, wan <coughs> mais c'est ça le problème c'est ça le problème yow dem bu ture yéen waa Pastef saxaloo leen ñu dara xamuñu lan la ñuy xaar ngeen saxal ñu ndigal ndigal mooy ngeen dugal ay marche ngeen wax nit ñi génn leen ngeen libere Ousmane Sonko loo leen fi wax xeex bi xeex bi première étape bi mooy dañuy génne Sonko fi mu nekk parce que fi mu nekk wóorul dañ koy rey <coughs> gars yi ngeen baal ma Ousmane Sonko Macky Sall da koy rey te Macky Sall bu reyee Sonko ñun yàqu nañu Ousmane Sonko rek nee na Macky Sall quatre cinq mois moo ko dese xaw ma quatre mois. ñun 50 ans la xex 50 ans de 50 ans yi du Ousmane 50 ans yi sommes 50 ans Macky Sall 3 mois moko fi déssé ñun tamit 3 mois mom xex 2024 nous lok Macky Sall ñun duñ fi di xaar 50 ans Ousmane Sonko 50 ans waaw 50 ans duñ ko xaar 9 ans ñen topuñu projet bi projet bi projet bi projet bi gatsa gatsa mortal combat def naa sama testament neuf neuf neuf ans ngeen sonal nit ñi nit ñëpp andi seen projet ah desul ludul ñetti weer ngeen bugg ñu gëmloo ne da ngeen ñu dañuy sacrifier projet bi di xaar cinquante ans xaaruñu cinquante ans Ousmane Sonko loolu la ko waa PDS bëgg gëmloo xaaral comme ab Ablaye Wade ah Ablaye wadd xeex na ci opposition bi vingt sept ans dégg nga maam jaara faam nee na Ousmane Sonko xale nga xale nga bul yàkkamti xale nga Abdoulaye Wade toog na 27 ans ci opposition Ousmane Sonko loolu ñun duñ fi xaar ngay nekk prison 10 ans mais loolu mooy saraxe nga Sénégal loolu mooy saraxe nga jeunesse bi booy dinañ jël gaal di dem booy Sénégal yi bu leen am benn sentiment de culpabilité waa Pastef ñu ngi fi génn di leen xas di wax ne yéen yéen a bañ a libéré Sonko c'est pas vrai xale Sénégal surtout booy Dakar yi maa ngi gis Mollah Morgun di len xas di wax wa Casamance ñoo ni gën a nekk guerrier waa Casamance kañ ñu gëna nek nekk guerrier booy Casamance boy Dakar Casamance kañ ñu gëna nek nekk guerrier booy Casamance boy Dakar première vague fa la xewé du Dakar deuxième vague fa la xewé du Dakar Casamance ñep xam nañ ne bi ñu ay xeexkat mais bàyyi len boy Dakar yi ngeen di xas boy seen jaan wacc na xeex nañu première vague ba gagner Macky Sall Ousmane Sonko mo wax nañu gungé Macky Sall. moo dàq xale yi moo ne xale yi dem leen ñibbi bu leen ñu fontoo bu ñu bu leen ñu fontoo bàyyi leen booy yi ngeen di xas booy xeex nañu Ousmane Sonko moo leen daq booy ñu ngi woon wër quand euh, quand Samba Diéry Diallo Colobane la ñu wër xam nga gars yi dem ba dépassé armée bi ndara génn suñ mu taxaa euh, déclenché ah ah inna lazina amano wa aminu salihati watawaato bil xaqi watawaato bi sabri sëñ bas poroxaan aywa demal sa grand bubu bu rëy demal si Sonko ah sëñ Moustapha Sy ak ñeneen ñi dem leen ah communicateur traditionnel ñoom ñëpp ñu yàggari yàggari sol seen grand bubu yéen a ngi rappelé jour boobu tuuti ma dee nefa tuuti jour boobu bokk na si jour yi ma gën a naqari sama àdduna billahi wallahi taalaay jour boobu Ousmane Sonko boo mu ne nit ñi dem leen dañuy gunge Macky Sall ba 2024 ba mu ko waxee man sama saaga nefati yow defe naa dellu nga nga seetaanaat laay boobu <coughs> dem leen ngeen seetaan laay boobu man damaa saaga ba ba mer jour boobu damaa découragé damaa découragé parce que man mënu ma comprendre nan ngay xeexalee nan ngay nekk révolutionnaire nga jëkku nit koo xam ne nit ku bon la sàcc sàcc ndale alalu réew mi ah sàcc alalu réew mi def yëfu yëfu neddo ko bandu di def yëfu maa tey faalewul Sénégalais yi Marème Faye dof faalewuñu àll suñu pétrole bi yëpp ñu jaay ko nga jekku nit kooku war ko fi jëlee sëñ Muntaxa dina jox ay ndigal nga naan waaw sëñ bi fii looy ñaan amu fi looy digal moo fi am sëñ Muntaxa mooy lan bay bay digal nit ñi sëñ Muntaxa moo moom Sénégal bay digalaate mais président Sonko mentalité làppato président Sonko il perpétue la mentalité de pour Nous, sommes yi nous sonal ñu wax ko ñu bañ ko wax sëñ Bass Abdou Khadre Nous, mu tuutee nous gars ngeen gis nit pouvoir da avons un complexe d'infériorité Omar Bongo Omar Bongo ba day sol ay coquette pour nous, nit ku en pouvoir faut abuser day abuser parce que tout bëgg nit ne.

te mosu leen ma dégg ma naan leen sama maam lii sama maam la sama maam la yéen ñii fi toog Khady jóob yow sa maam la jóor Diop la Dior mooy sa maam Mbacke Mbacke moo la gën Mbacke maa la moo la gën ba nga toog di ko sukkal ah di jël sa addiya di ko jox ñu jël ay Baay Faal jàpp nit ñi di dóor di def lu leen neex Ousmane Sonko bu ñu waxee rek bu ne tàndarma bi ñeewantal Pape Alé Niang moo ñu sonnal gis nga Pape Alé Niang mentalité kaw-kaw bi nekk ci moom la war a bàyyi. la war a bàyyi boo amee dee mu naan Youssou Ndour danaan def ay live di teg Youssou Ndour gën ngeen ko dégg mu teg Youssou Ndour de temps yi ma nekkee Brooklyn lu ñu wax rek mu tegal ñu Youssou Ndour ma ne ko yow ñii dañ laa bañ bugguñu la nga nekk fi di teg ay Youssou Ndour sama maam daan wax naan lii dugg na fii génn fi kañ ngeen dégg te Pape Alé Niang teg teg teg way Youssou Ndour Pape Alé Niang bu jógee di wax way sëñ bi ah tàndarma bi dañ ko ñeewantal dugg na fii génn na fii ah wàccoo naa gi yéen ah. sëriñ dañ leen jox worma amul benn worma bu ñuy jox benn sëriñ amul xalif général amul xalif euh, partial xam nga xalif général xam na lan lañ ko xam toogal Touba nga jiite juma màggal bu ñëwee nit ñi màggal jeex na mais amuloo looy digal Sénégal ci politique ba yaakaar ne yéen Vatican Touba day nekk Vatican yéen a moom Touba kenn du fa voté loolu kenn waxatu ci 600 bureaux de vote.

benn njëriñ rek a ci am mooy sëñ mu Mountakha yaa ma joxoon ndigal ma dagg dagg naa waaye comme faale woo ma man tam faaleetuma la commencé war naa ci grève de la faim bi Sonko loolu grève de la faim bi foofu rek la amee njëriñ mooy sëñ mu Mountakha yaa ma ndigaloon waaye ndigal bi bàyyi toppuma ko parce que tamit ñun duñ fi toog ngeen def seen combine ah bëgg jël makk Sall teg ko suñu kaw ah ba pare di wax ne Sénégal dafa am jàmm booy Bass Abdou Khadre nee na Sénégal dafa am jàmm te lu tax mu am jàmm parce que Ousmane Sonko mi ngi ci kaso bi Sonko moo war a bàyyi bàyyi layam layam yi Sonko moo war a jël responsabilité mu wax gi nit ñi génn leen ngeen xeex parce que makki Sall ci guerre la ñu woo billaahi wallaahi taalaahi makki Sall ci guerre lañu woo boo leen dof dof loo boo leen dof dof loo Sonko dinañ ko noot Sonko il est devenu il est devenu docile ah ken xamul qu'il kenn xamul Je man nag ci Mister ne rek ngeen ko critique Sonko parce que y'en y'en Sonko ngeen ko général Vous ngeen laisser Baye mentalité Ousmane Sonko waru leen koo jaamu comme Khalif général ngeen Ousmane Tonkara. Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko ñuy Sonko troisième mandat. Macky def troisième mandat wallahi wa wataalaahi man ma deg Ousmane Tunkara wax lolu il n'y a même pas 15 jours il n'y a même pas 15 jours man ma deg Ousmane Tunkara mu son Ousmane ndigal Sonko la deg Sonko buñu waxé waxee len leen Aïda Mbodj ñu voté Aïda Mbodj mom bokul Sonko buñu waxé waxee amna am keneen ku wax Gàccee Fall ñu voté Gàccee Fall man dina voté Gàccee Fall man dina voter Gathie Fall nécessité Fall le faux militaire là Voilà may avec ma formation de militaire je suis Gatchefal. Fall regardez-moi avec sa grosse tête là Gatchefal, Fall ana moo kenn ngeen ko gëj au sens propre comme au sens figuré ana Gathie Fall kenn ngeen ko peut dire avec sa grosse tête là avec ma formation de militaire je suis Gatchefal, Fall je suis le mandataire de Yewwi Askani. Wi jàpp nday suñu liste sac yàq suñu list sacrifier Sonko dindi ko ci liste national ba Sonko nekkul député tax ñu jàpp Sonko daal di ko wu euh, atte bu amoon immunité kenn du ko atte n'est-ce pas nu mu tuddati euh, Khalifa Sall la traître ah suñu list mu yàq ko moom ak Barthélémy Dias complot complot Sénégal moo bari ay jaam jaam yi kañ ngeen gëj a dégg gàcce faal ah ay ay ay ay nu mu tuddati Malick Gakou démb nañ ko arrêté ci yoon bi encore mu ne dee dem utu parrainage yéen ñëpp Macky Sall dina leen téegal yéen ñëpp dina leen téegal Khalifa Sall tam dégg naa dañ ko arrêté xaw ma Fatick nee na day ut parrainage boo loolu sax boo demee commune la na dañ ko arrêté Macky Sall dina leen téegal yéen ñëpp parce que parce que doo leen gat Sénégal moo bëri jàmm c'est pas yow yaa ngi wax Mali Mali Mali dañoo sonn dañoo yàgg galéré moo tax ñu génn xeex Sénégal ay noble la fa nekk gars yi ngeen baal ma Sénégal Sénégal sonnul Néfertiti Sénégal sonnul ay noble ñun ay de yàgg nekk ay noble xool leen Dakar nu mu Hein? ah xool Dakar nu mu mais surtout immigré immigré yi ñoo tax sénégalais yu fuy xool ma man sama famille vingt ans maa yor vingt ans Lo liggéey yonne. la lo liggéey yónnee leen ko bay na sagaru teere la am Sénégal kër sax aw parce que lo liggéey yonne, l'en, ko ñun ñoo yàq sénégalais. sénégalais sonnul xam nga ne Ngaaka Blindé fu mu toog di di rap di clash xaw ma ak lu bëri loolu mooy buzz ay lamb ay moodulo sénégalais sonnul tant que immigré yi téewuñu seen xaalis te loolu immigré yi du mënuñu mënuñu téye suñu xaalis ñun tey la ñu gën a joxe man 400000 lay yónnee par mois billahi wallahi taala li may yónnee par mois sama jabar ëpp na 400000 dañ ñoo gis nga ñun sénégalais yi dañ ñoo dañ ñoo conditionné gis nga séeréer yi ni leen conditionné am na fi benn séeréer bu ko waxoon. niñ leen conditionné ba ñu jàpp seen xale yu jigéen ñi di leen yóbbu Dakar ñuy mindaan ñun tamit suñu paa yi noonu ak sëriñ yi noonu la ñu conditionné da nga war a toppatoo sa papa da nga war a joxe dépense danga war a dem li moodu moodu boo moodu moodo da nga war a man damaa yónnee li ma yónnee Sénégal ëpp na cent millions deux cent millions ëpp na ko en vingt ans li ma yónnee Sénégal ëpp na ko di dem dañoo joxe dépense joxe dépense moo tax waa Sénégal fuy taluñu sax Sonko ñu ngi lekk ñu ngi naan ñu ngi voler suus ñi ngi xene time Sénégal dafa neex chaque jour nga génn nga gis ñu génn benn affaire ñu ngi voler suus ñu ngi xene time ñu ngi siidiloo euh, euh, euh, Sidi sama waa ji ni mu tudd sama chanteur bi Sidi Diop Waly Seck taluñu daara daara Sénégal yi bu ñu jógee di wax Mali Mali li tax ñu def révolution dañoo xiif amuñu lekk dëkk bi wow na amuñu géej amuñu pétrole amuñu gat gat amuñu ko mais Sénégalais yi ñun dañoo set yëre yu sol yu baax la ñuy la yor ah loola tax révolution pour mu am Sénégal du yomb Ousmane Sonko day sonal boppam billaahi wallaahi Ousmane Sonko day sonal boppam bu doon grève de la faim bay waaj a dee comme li ko daloon ba le passé du tax benn Dakar waa génn Casamance yi sax talatuñ ko Sonko il est victime de sa euh, ni ñu ko tuddee euh, passivité il est victime de sa passivité te te gars yi li may wax bu leen ko jëlee sens négatif mais ko ak baaxul ak baaxul do and ak Cheikh Omar Diagne mu lay xeexal dugg ci kaso bi nga and ak Gomaay fay mu lay xeex dugg ci kaso bi nga and ak Amidia mu lay xeex dugg ci kaso bi nit dof mu lay xeex dugg ci kaso bi han ah, Nongo Diop dila la dugg ci kaso bi Fala Fleur dila la dugg ci kaso bi nga ñooñu ñepp nga war leen génne génne leen ak baaxul karma dafa am boo leen jógee di wax président Ousmane ko mu sell mi waaye mu sell mi loo sell sell sell yàlla am na yoo xam ne bu ko seetaan yàlla buggul injustice yow nit yi yaakaar ci yow di xeex di la xeexal ñu jàpp lu mat ñaari junni yow nga toog fi nga toog rek sa kër te yow ñii ñooñu yow yaa leen mën a génne Ousmane Sonko il faut ñu wax ko dëgg boo leen ko dul wax dëgg du xam. il faut que ñu koy wax pour mu xam parce qu'il n'a pas le monopole de la de la vérité il a fait beaucoup d'erreurs Baye Ndiaye da koy wax Baye da koy wax Ousmane Sonko tu as prêté le flanc xam la mooy prêté le flanc Moi, il y joxe wet dafa mel ne ngay bëre rek joxe ngemb boo joxee ngemb nag ba ñu jekku la ba Macky Sall jekku la bu la reyee yaa ko defa ah, c'est affaire là. loolu la Baye Ndiaye Baye Ndiaye di wax Baye il est pragmatique Nous Sonko codés parce qu'il a fait une des erreurs ak baaxul ñii la ñi la doon xeexal yow boo joxee ndigal ne nañu marche comme ni nga ko waxee da ngay jóge Casamance dem Dakar fin après dañuy def ay manifestation yu bëri pour libérer prisonniers yi loolu lañu Sonko digal dit. digaloo ñëpp di xaar loolu mu nangu ñu ko 55 jours au nom de quoi Macky le petit le diminutif le prématuré euh, euh, euh, suñu waa ji nu mu tudd di nee naa leen ku tuuti boo ko joxee day abusé dal Antoine Diop Antoine Diom il est petit. C'est un nez, C'est un prématuré. Un nez avant terme. Ne fait du Il le poussin. nga jox ko doole. tu fait un complexe d'infériorité. nit ko bu bu pouvoir day abuser. Mo dal Omar Bongo mu nek euh, fofu ak 41 ans Gabon Mo dal Boss Abdou parce Abdou il compenser ci ci ñuy dóor nit ñi mu naan yàlla ko dogal nit ñi di dugg gaal di dee mu ne boo leen deewee safara nga jëm boo tuutee dangay ngay moo dal Antoine jom Antoine Diome nu mu tuutee noonu noonu loolu noonu rek la mënoon def pour nit ñi respecté ko parce que ba mu nekkee xale dañ bu demee école dañ ko daan dóor boo tuutee boo tuutee Omar Bongo ba mu nekkee xale boo tuutee nga nekk xale dem école jàng bizutage boobu ñuy wax ñëpp lay sonnal di la dóor di man fi may ne fi fi nekk ni mais foo ko fekk day ñàngal dalay leer na ba mu nekkee xale école dañuy nangu di di sonnal ku mel noonu nag tey bu demee ba am pouvoir day fàttaliku loolu yëpp day soxor day a Ousmane Sonko nag moom Antoine doole jom doole ñi mu waroon libéré libéré wu le 15 juillet mu nekk sa anniversaire ah! ñu war a def suñu investiture nga ne dañuy def concert de casserole bu ñu nee nii rek concert de casserole concert de casserole di dellu ginnaaw di dellu ginnaaw di dellu ginnaaw ba far nag ñu tas waaye xam nga ne investiture boobu bu ñu ko ah géejewaay yëpp ñëw Sénégal yëpp ñëw investiture bi anniversaire Sonko Macky Sall day dellu ginnaaw du jàpp Sonko mais loolu yëpp c'est le passé jàpp nañu président Sonko nga yaakaar ne tey la war a xeex.

ñu koy dépensé 150 000 francs prisonnier de luxe ah, il se complète dans sa situation de prisonnier il se euh, euh, régit d'être un prisonnier pourquoi parce que tous les grands hommes ont été prisonniers c'est pas parce que Nelson Mandela dugg na prison Il da a prison Nelson Mandela doole bi nga am fonko Nelson Mandela amuko ko waaw ndax yow ndax yow peuple bi yépp pour joxe seen bakken pour yow billaahi wallaahi taalaahi boo yi di jël gaal gi dee ci gaal gi bu ñu sonkoo joxewoon woon ndigal ne génneel leen ma fii ma nekk ci ngeen xam ne booy géere leen waaye bu dee président Sonko moo dem ci Pape Alé Niang mu tegal ñu Amadou Ba Amadou Ba ne bu leen xeex ah mais kooku dafa yeb nit ñi ah loolu tax nag am axana toon ne kii ne da ko bandum la Macky Sall lay liggéeyal parce que yow nan ngay demee ci Pape Alé Niang nga xam ne adduna bi yëpp moom la seetaan Sénégal yëpp dañoo yaakaar ci ci ci Pape Alé Niang nga dem foofu naan naan bu kenn xeex parce que boo xeexee Macky Sall day yokk ñaari at yow dof nga yow mérité wuloo nga nekk cadre Pastef Amadou Ba maire dañ ko war a dàq Pastef wax jooju ku ko wax dañ laa war a dàq bu kenn xeex parce que boo xeexee Macky day yokk deux ans waa et <laughs> mais ni ñoy dof ñii ñoy dof dafa nous ne nous. dafa Nous ne ñu bu kenn parce que nous xexé Macky day yok ñaari at way na Macky yok 100 ans na yok 100 ans lolu moy suñu victoire Macky bu yoké suñu victoire lolu wone élection amul dañuy xex ak Nous xex ak mom ba armée bi jël nguur wala ñu ray ko wala mu ray ñu te ñu ray ñun ñëpp parce que nous on est 17 millions. mais tappet yi buqat yi bëgg gëmloo nit ñi ne Macky Sall dafa bëgg créer kaw yéen a mën a duul gars yi ngeen baal ma bàyyi leen duul bàyyi leen fen bu dee bëggu leen xeex wax leen bëggu leen xeex bu jeex mais Macky Sall dafa bëgg créer kaw maanaam dafa bëgg réew mi jaxasoo yéen a mën a fen Macky Sall bu bëggoon réew mi jaxasoo suba tey tey nii ci guddi gi billaahi wallaahi taalaahi tey ci guddi gi Macky Sall bu bëggoon réew mi jaxasoo réew mi jaxasoo tey ci guddi Macky sàlla ak Antoine Diome bu ñu bëggoon réew mi jaxasoo réew mi jaxasoo ak ko yomb ak ñoom ñi ngeeg seen i nervi nervi yi la ñuy jël jox leen ay cocktail molotov dem leen kër Ousmane Sonko ngeen taal ko dégg nga dem leen kër Amadou Ba taal ko dem leen kër waa APR ngeen taal comme sa ñu ne terroristes yi ñoo attaqué yàq leen Auchan Macky Sall bu bëggoon jaxase réew mi da koy jaxase parce qu'il a les moyens. am na ay nervi am na gànnaay mën na rey mën na taal mën na def lépp pour toog bu bëggoon jax jaxase réew mi da koy def lan la ciy xaar yéen lay xaar ngeen jaxase réew bàyyi leen fen bàyyi leen duul boo leen ragalee wax leen da ngeen ragal boo leen ragalee wax leen da ngeen ragal Macky Sall bu bëggoon créer kaw da koy créer université rek lay tijji day tijji université bàyyi vingt mille xaw ma université ñaata étudiants ñoo fa nekk ñaata étudiants ñoo nekk université ëpp ñii na ngeen cent mille ñii na ngeen naan il y a cent mille étudiants Dakar ñaata étudiants ñoo fa nekk Macky bu bëggoon kawo day tijji université mais université ngi nii ñemewuñ ko tijji ba léegi ñemewuñ ko tijji te ñu ngi ci fin octobre bu bëggoon day université ba pare ne étudiants yi manifester leen def la lu la neex bu gaa yi génne mu génne armée bi def état d'urgence ku bëgg kaw noonu lay def yéen yéen a ragal yéen a ragal a xeex te li ngeen bëgg mooy saraxe Sénégal vous voyez passer destin un destin tellement nébuleux un destin tellement occulte Il y a man mii Mister Shake maa mak mag gënu ma Malen a voyager mënu leen ma nax de un leen je suis xam yàlla je philosophe temps c'est pas ce Ousmane Sonko qui va libérer le Sénégal parce que Sonko calculer un révolutionnaire ne calcule pas révolutionnaire une occasion tu saisis l'histoire Ousmane Sonko il a manqué une occasion unique d'entrer dans l'histoire c'était le 8 mars 2021 révolutionnaire à bu une occasion pour dire le, pour changer régime bu waree ça sax mais Danan, c'est nga ne la nañu arrêté naa wax xale yi ñu arrêté au nom de quoi may wax xale yi ñu arrêté lu tax may wax xale yi ñu arrêté Macky Sall bëgg ma jàpp ci loo xam ne du dëgg bëgg ma tëj comme ni mu tëjee Khalifa Sall comme ni mu tëjee Karim Wade léegi ma jekku ko xale yi génn nokk ko ba mu daw léegi yow sëñ Mountakha nga ne naa naa dellu lu tax may dellu ginnaaw sama yoon nekku ci ah boo ko deful lañ lay rey de rey leen ma yéen xanaa xamoon ne Sonko dañ ko menacé yéen vous êtes des yéen vous êtes crédule yéen da nga yaakaar ne Ousmane Sonko sëñ bi dafa ñëw rek ne ko sëñ euh, Sonko demal 6 heures def conférence de presse wax ne Macky Sall il faut ñu gunge ko ba 2024 demeewul noonu de dañ ko menacé parce que dañ ko tëj 4 jours ne ko boo bëggee génn da ngay dem nga wax lii Sonko dañ ko wax loo boo ko deful dinañ mën nañ la rey dinañ rey sa njabar dinañu rey Anna dina ñu rey ñëpp mais Sonko bu doon révolutionnaire dëgg-dëgg xam nga lan leen di wax allez vous faire foutre. rey leen ma te Sonko bu defoon loolu est-ce que dañ koy Ray? duñ ko Ray? parce que Macky Sall bu rey Sonko dañ koy Ray. révolutionnaire doo xool doo xool sa bakkan doo calculer Sonko il a manqué une une occasion unique d'entrer dans l'histoire ñu menacé ko ne ko boo ko deful dañ lay rey dañuy Ray Anna Diamanka doo génn fii lañ lay téye dëkk bi mën na tàkk xale yu bëri dinañ dee Sonko tamit xalaat non non waaw waaw xale yi dinañu dee dugg na fi garaawul nañ ko gunge ba 2024 nañu jaar ci ay élection ba tey yàlla dimbaliwaat ko parce que loolu normalement boo ko defee li ñuy yàlla du la tàcc ñaari yoon xam nga loolu lañu ñuy wax yàlla bu la boo waree fecc bu la tàccoo pour nga fecc feccoo dootu dootoo feccaat Youssou Ndour woy na ko mais Sonko yàlla dimbali ko mu bàyyi Macky Sall ci mais terewul mu demaat ba waat Macky Sall dans ci diggante bi ñu xam lan mooy système Sonko Sonko loolu mu def leen rek a ci baax le 8 mars bi mu ne nañu gunge Macky Sall leen rek a ci baax mooy ci diggante bi dañoo xam ñan ñooy traître yi nan ñoo bokk ci système système bi xalif généraux yi ñoo ko jiite Khalifa Sall Barthélemy Diaz waaye yow askan bi nekkatu ñooñu ñëpp ci système bi lañ bokk ay Moustapha Sy sëñ Moustapha Sy ay Gathie Fall xëy na Aïda Mbodj sax mën nga ko ci génne Maimouna Bousso mën nga ci génne mais ay yuum ah Gàccee Fall Ahmed Aïdara Malick Gakou ñoom ñëpp ci système bi lañ bokk ndax ñoom ñëpp ñoo ñoom ñoo trahir Ousmane Sonko trahison bi nag bu mi ak bu xalif Sall moo gën a fës mais ñi ci des ñëpp à part le docteur Cheikh Tidiane Dièye Maimouna Bousso Aïda Mbodj à part ñetti ñooñ ñi ci des ñëpp xëy na am na ñeneen ñu ma fàtte ñi ci dess ñepp dañoo trahir Ousmane Sonko lolo tax le 8 mars gunge Macky Sall bi lolo tax mu am sens Sonko daf ñu won né mourid surtout nak lolo surtout lolo daf ñoo won nek té xalif généraux yi ñom ñoy ñom ñoy ñom ñoy nek té ñom ñoy système bi ñuy wax la mafia politico maraboutique bi ñu Ahmadu Ahmatoon daan wax kenn mësu ko gëm ñu ngi ciy doog tek bëtt ay xalif généraux yo xamné dañuy tok gis ñu japp Sénégalais di ray ñu xol geej ndax nervi yi ba ñu yoree seen kalachnikov di tiire nit ñi numéro 9 bi ñu wane ko est-ce que dégg ngeen benn xalif général ñoo xam ne ñoom ñoo ne boo deewee ñoom ñooy assurer sa alaxira ku mënul assurer sa àddina nan lay assurer sa alaxira yow nga gis numéro 9 bi yore kalachnikov di rey nit ñi nga gis Antoine Diome tëj 400 booy nga gis waa Pastef ni ñu leen di def ah xalif généraux yi di tàccu kontaan wax na Sénégal léegi dafa am jàmm. Euh, Bass Abdou Khadre nee na jàmm bu amee Sénégal euh, euh, Mountakha moo tax kon kay Mountakha tax ñu ci Sonko moo tax Ousmane Tounkara temps yi mu génn di wax ne soxna Bali moo comploté moo Marème Faye pour ñu tëj Ousmane Sonko nga dégg Khalifa Mahi Niass nee na pare na pour guerre ak ñun Mahi Niass parce que nee na ay maamam dañoo xeex tubaab yi fan la maamam yi xeexee tubaab bi dama leen laaj maamu Mahi Niass fan la ñu xeexee tubaab bu dee da ngeen xeex tubaab bi la commencé fay tubaab bi toog fi ba doyal doog a ñibbi trois cent ans toog nañ ko fi def ñu ay jaam coloniser ñu tabaxal ñu ay pale tabaxal ñu tali lépp ñoo ko fi def tubaab yow nga ne da nga xeexal tubaab bi fan nga xeexal tubaab bi léegi nee nga parce que Ousmane Sonko mi ngi ci kaso bi ngeen yaakaar ne Pastef tas na ngeen commencé am picc di jëfu Mahi maa toog dégg ko mu ne dañuy jàmbaarloog ñun paa boobu ngeen baal ma paa yu xobedaas yooyu nan la ñu mën a jàmbaarloog ak jeunesse mais c'est incroyable ce qui se passe au Sénégal c'est pas un pays nga jóge fofu. Hein? Euh, sëñ Babacar Sy nee Amadou Ba futur président comme nous, dañoo bëgg perpétuer système Néna Amadou Ba futur président tant que tant que au wa Sénégal tant que nous sommes au Sénégal, nous sommes au leen di jaamu nit mbàkke mbàkke yi kenn waratu leen su jóotal kenn waratu leen jox addiya màggal Touba kenn waratu fa sax dem far sëñ Touba mën nga ko jaamu nekk ndakaar mën nga ko jaamu mën nga def sa màggal nekk eh, New York mbàkke mbàkke yi nekkewuñu fi dara lu dul privilège du sol ay jasneer yu baax du am ay jéeg yu baax ah seen jabar yi di xeesal ñuy tere nit ñi di xeesal soxna Bali gis nga buñ ko wanee keroog lamu or yi damaa tiit nefa tiit loxo yëpp lam la or ah hein? ñu yor ay 4-4 yor ay immeuble almaadi yi ñoko mom yeen nak Sénégal yi ngeen tok hein bëgg loolu continuer courant bi di gëna yok ndox di gëna yok yokk lépp di yàqu Sénégal lépp fa yàqu mais c'est pas un pays Ousmane Sonko wara libérer réew mi nekk fi di layem layem léegi Sonko dama leen di laaj wa léegi Sonko lan la bëgg <laughs> gars dit dit dites-moi qu'est-ce qu'il veut président Sonko qu'est-ce qu'il veut il veut mourir en prison dama leen di laaj est-ce qu'il veut mourir en prison parce que Macky Sall du ko bàyyi dé. ana Clédor Sène Clédor Sène di wax né Ousmane Sonko va être libéré Macky Sall yorul réew mi il y a des généraux mané ko waxo deug. Waxo deug Macky Sall mo yor réew mi amul benn général bu ñëmé def coup d'état Sénégal Macky mo yor réew mi moo yor daf ñoo jekku Té buñu ñu billahi wallahi taala man sama xel génn naa ci Sénégal yàgg na man léegi damaa noppal ko sax fan barki rasulilaay damaa noppalu man sama xel dama cee génn Sénégal maa ngi si sama bato maa ngi liggéey maa ngi am xaalis maa ngi lekk maa ngi naan maa ngi entraînement su ma fi liggéeyee neuf mois su ma ko mënee mën naa sax liggéey dix mois du ma pour am deux mois de vacances su ma amaatee deux mois de vacances dem Times Square def sama takkusaan takkusaan Times Square liggéey liggéey ba am xaalis su ma mënee jënd kër fii Amérique ma jënd fi kër mën naa liggéeyaat dix ans ci bato. bato bi mun naa fi liggéey dix ans parce que liggéey bu yomb la respecté nañu respecte naa loi mun naa fi liggéey dix ans kenn du ma dàq yombul de jour ñu dàq nit fii mais man li may liggéey mën naa fi liggéey dix ans kenn ma dàq même buñ ma dàqee Amérique laa nekk mën naa utiwaat beneen liggéey Sénégal sama laa génn sama xel parce que Pastef dafa ndara saraxe Sénégal sama nga Cheikh Yérim Seck bu koy wax. ngeen yaakaar ne day wax ni Ousmane Sonko dafa sarax Pastef bu koy wax waxul ne Ousmane Sonko dafa sarax Pastef mais mais ak ak baaxul ak baaxul lan moo tax Ousmane Sonko def grève de parce que baaxul dafa gis ñoom faa la fleur sonn di def grève de la faim mu gis Amidia defe naa sonn def grève la faim ak ndaw si ndaw xaw ma ndaw si jóge woon Suisse nekk patriote am fa sa liggéey. ñëw Sénégal di xeexal Sonko ñu jàppale dugal ci kaso bi sa këyit yàqu say say liggéey yàqu Sonko ñooñu la xool moo tax mu commencé waat grève de la parce que dafa xam ne àq baaxul ñooñu bu ñu duggee prison sonkoo tax mais Sonko ñooñu da yaakaar ni Sonko moo tax ñuy grève de la instant yi grève de bu njëkk ba Sonko daf leen woo ne leen daf leen grève de la faim ñëw ñëpp dem mais dañoo dem ba sonn nga nekk jigéen. ñu devons la ci prison boo xam ne douche na ah, dem ba ba bay waaj a ñu ne kon nañu dee benn yoon mais ñoom fàtte nañu gis nga ñu ci prison bi ñu bëri parce que mais il se sentent abandonnés par le président Sonko président Sonko li ko dal ce que yoon la boo leen jógee di wax président Sonko mu sell mi mais balaa may dee ñu ne noonoo yàlla bu la bëggee dalay teg nattu c'est pas vrai leen nooyu yàlla bu la bëggee du la teg nattu yàlla bu la bëggee dalay lay jox wërsëg jox la doole boo ñàkkee fayda nag wala nga ragal sa gëm yàlla moo des te yàlla bu gisee ne sa gëm yàlla dafa des dalay bàyyi nga torox waaw Ousmane Sonko moo sonal boppam. yàlla sonnalu ko yàlla jox na ko lépp jox na ko xaalis bu wootee léegi gaa yi dugal ko 300 millions yéen a ngi fàttali ko am na fi benn ket bu mu def salaamaaleykum maaleykum salaam 300 millions dugg Ousmane Sonko milliardaire la Ousmane Sonko bëri na mbooloo bëri na nit bu bëggoon jabar neefati tey Ousmane Sonko bu amuloon jëkkër Sonko bu ñëwee ne la kaay mu def na ñaareel nga nangu lépp lu mu bëgg am na ko Ousmane Sonko waaye li ko yàlla sant mission bi ko yàlla sant mooy. da nga wara a tayle sa baket xéewal bima la jox wërsëg bi ma la jox xam nga lu tax nga am ko parce que da nga wara a tayle sa baket pour libérer yenen nit ñi pour yenen nit ñi aussi am ci xéewal bobu waye bu dama la jox xéewal bi nga commencé gis kaat kaat mu rafet nga commencé gis siw nu mu nexé mu rafet ah nga nga japp né ya nga wara dugg palé nga commencé di calculer non non buma ma taal mi parce que suma talé taalee mi président duma fa fekk dara ah nga yaakaar ne mën nga naxanteeg Macky Sall ba mu bàyyi la nga dem pale loolu boo koy def yàlla dinaan la ah kon yow gëmoo ma léegi dangay ngay nga war a def sa investiture sama roomu góor ne doo def sa investiture nga dew naan da ngay teg di fëgg ay bool ba kañ nga toog ñu jàpp la jàpp boo xam ne du ñu ñu wër la sa kër wër boo xam ne amul ordonnance du juge amul dara doo génn nga dem julli jumaa man loolu laa ko waxoon gennal nga ne damay dem julli juma da ngay gem yalla ba xam ndax dañ lay japp buñ la japp sax contumace bi de temps yoyu mais Sonko ne du def day tok kërëm rek genn tuuti football fi tuuti delat delwat ñu wone ko muy entraînement di ci cere mbumam yore alcorane di liir yàlla waxula lolu xare badar la la wax yonent bi fay jël ay jasi dem xare badar bo ragalé te limay li wax ni Sonko moñu ko wax boo ragalee dee da ngay dee Sonko moo ñu ko wax ndax booy Korka ba bañ ko reyee euh, na xaw ma Ziguinchor Sonko dem di jaale ji papam yaay dem leen dem leen dem leen euh, euh, YouTube léegi ngeen gis ko ngeen déglu li Sonko wax Sonko nee na boo ragalee dee ci ngay dee ndax yàlla dafa joxoon malaakal mawti mooy malaaka bi reyaate ndigal ne ko demal rey Sonko deux heures trente deux heures la ko wax waaye malaakal mawti yàkkamti dem deux heures ba mu demee deux heures kër Sonko fekku fa Sonko mu ne kon xaaral ma dem rey Mister Shake deux heures su ma rey Mister Shake après nag ma delluwaat kër Sonko rey ko dina fekk Sonko ñibbisi ba mu demee pour rey Mister Shake fekk Sonko seet si Mister Shake Sonko ole mu gëm yàlla toog waaye Sonko gis malaa ko mawti nu mu kimee rek mu tiit ne i xaaral ma daw daw dee xaaral ma daw dem ñibbi waaye nekk xamul ne daw boobu muy ñibbi bu demee këram dina fekk deux heures demi jot alors bu toogoon si Mister Shake malaaka ko mënatu du ko rey Sonko moo ñu wax lii moo ñu ko nettali boo ragalee dee da ngay dee boo boo risqué nga ne tayle naa sama bakket ci ngay dund instant yi Ousmane Sonko dafa ragal dee moo tax bu sàgganee Macky sàll dina ko rey ndax yow yow xam nga ne jàpp bi ñu la jàpp du teguñu ko ci dara. nit ki même mën nañ jàpp sax nga ne damay génn par force parce que dama am doole président Trump nekkul si dëgg mais pour ñu tëj ko fii dina metti trop président dëgg nekkul ci dëgg de parce que dafa bëggoon sàcc ay élection dafa bëggoon sàcc ay élection benn avocat am sax avoué na mais effectivement je plaide je plaide coupable Sonko moo ma yónni euh, kii Trump moo ma yónni woon pour ma sàcc élection mais Sonko président Trump dafa am mbooloo tubaab yëpp moom la ñu àndal. kooku pour nga tëj ko ci réew du yomb tey Ousmane ko même bu doon sax dafa violé Adji Sarr maara day taal bu ko neexoon kenn du ko tëj parce que saa yu ñu ko tëjee mu ne kat leen day réew mi kat leen day réew mi ma génn maa tooñ c'est vrai maa tooñ maa def lii maa def lii maa def laa maa sàcc maa violé maa def lii waaye man ngeen bëgg man ngeen àndal génn leen kat leen day réew mi ma génn mais lan moo tax mënul joxe ndigal pour ñu génne ko te moom sax tooñul dañ kaa waaye yéen lii jaaxalu leen lii jaaxalu leen nit ku ñu tooñ la ñu tooñ la ne la doo génn sa koñ doo génn sa koñ cinquante cinq jours nga nangu ko looloo waral tamit ñu jàpp la waaye bañ la jàppee doo fippu nga ne non non sénégalais boo leen ma seetaanee man ma dem wakkilu ci yàlla loolu la bind ci Facebook Facebook am ah boo leen ma seetaanee ma wakkirlu ci yàlla boo wakkirloo ci yàlla yàlla waxul nga wakkirlu de yàlla xeex la la wax ay wakkirlu ci yàlla amul yonent bi dafa toog benn euh, euh, euh, nit ku waane nit ku waane indi géléemam si booru jumaa ji ñuy waaju julli nit ku waane waaw ñuy waaju julli mu jël géléemam teg dugg bëgg dugg yonent bi nag waa yow yow yaa ngi nii heure julli jot sa gëlëm bi doo ko takk mu ne non non du ma takk sama gëlëm parce que damay julli comme damay jaamu yàlla damay wakiru ci yàlla xam naa ne yàlla dina sàmm sama gëlëm yonent ne ko hey hey hey demal nga takk sa gëlëm ba pare boo ko takkee ba mu takk après nag ngay doog a ci yàlla <laughs> Sonko warul wax Sénégalais yi boo ma seetaanee après man damay ci yàlla Sénégalais yi seetaanuñu la. Yo ya des Sénégalais qui sont dégoulés. Vous conscience. Vous une président Sonko. le moyen psychologie. Il faites a <laughs> la la la la. président Sonko, vous avez le moyen psychologique. Vous avez conscience. j'avais 30 ans. J'avais 20 ans. J'avais 40 ans. Man, l'instant, il 55 ans. Si j'ai 20 ans, je ne sais pas. Je football rek jéem a nekk professionnel ba ma nekk université taluma dara sama bopp rek laa doon jéem a lijjanti nan laay def am jabar nan laay def ba am bourse génn États-Unis 40 ans sa xel sax du tijjeeku il faut nga dem ba ay côté 40 ans 45 ans lu ñuy wax la crise de la quarantaine doog la dal ngay doog a xam ne adduna du làmb du football du Youssou Ndour man kañ laa gëj a dégg Youssou Ndour kañ laa gëj seetaan làmb même coupe du monde bi sax daan ma ko seetaanatuma ko basket yi ma daan seetaan tennis seetaanuma ci dara tant que amuloo quarante cinq ans nga dund li ñuy wax la crise de la quarantaine américains yi di ko tuddee mid life crisis mooy la la crise du ñu koy waxee de la moitié de ta vie wala du millier de ta vie xam nga noo ko ma tuddee mais am mais français ñu ko tuddee la crise de la quarantaine doo xam dara dara dama lay jox exemple sama jabar 30 ans les suis 30 ans mais si je ko wooyee waxu rek la wax anniversaire 100 bi yónnee ma 100000 ma lii ma 200000 nga ko 100000 non non doyul yónnee ma anniversaire l'anniversaire, gis nga ah, anniversaire parce que gis nga âge ci xam dara Sénégal jeunesse Sénégal la moitié de la population. 75% <coughs> de la population ils ont moins de ils ont moins de 25 ans xale yi xamuñu luy xew xamuñu luy politique xamuñu luy grève de la faim xam nga moins la la xam ndigal ñu may waja ray. Ils ngeen 25 ba est-ce que jaral naa leen dee ont yi la waaw boo deewee sa sa réew ngay xeexal jaral naa leen dee nga wax ko leer mu leer ans. il faut nga koy 25 yéen nga rappelé Sonko de lu ans. Sonko daan bu buñ ma jàppee est-ce que ni ko seetaan gis ngeen gis ngeen sama sama doom bi defal ko anniversaire mu mel ne ren gis ngeen xaar leen xaar la moon leen gis ngeen seen yëfu caaxaan yi Sénégal lii lañ dal Mumbaay anniversaire seen yoon nekkul ci Sonko président Sonko xamul li xew bu defee grève la faim bay dee terewul gis ngeen ñu ngi seen i ginaar ñu ngi lekk xoolal man yónnee wu ma ko li yëpp de man cent mille laa ko yónnee cent mille laa ko yónnee yónnee waat que cent quatre vingt mille parce que chaque deux semaines dama ko yónnee cent cinquante mille wala cent quatre vingt mille ma yónnee waat que cent quatre vingt mille mu jël ci dépense bi parce que li yëpp cent mille mënu ko mënu ko mënu ko def mu jël ci dépense bi di def seen yëfu caaxaan yi ay anniversaire ay Mumbai alors que président Sonko mi ngi waaj a dee Sénégal mi ngi waaj a tàkk te lii dama leen jox exemple sama jabar rek Sénégal yëpp nii la ñuy def Ousmane Sonko xamul li xaw gis nga leen ana ñu wax ne Sénégal yi dafa sonn dañoo sonn ñu ngi nii di di noos <laughs> man lii gis ma ko woon sax vidéo bi maa ngi koy doog gis xaaral ma xool ay gato ay ginaar révolution tey rek ngeen dee tey rek ngeen dee caaxaan yëfu caaxaan rek la ñuy def xaaral ma génne ah, ah, ah. net da ko bandam dee

est ce que war nañu célébrer anniversaire est ce que war nañu def ay làmb football mais président Sonko xamul li xew xamul li xew xol len ana ñu ne Sénégal dafa metti xol len ginaar te 100000 rek la ko yónnee xol len canet yi ana ñu ne Sénégal dafa metti ay ay xale lañu bu len condamné bu len condamné soxna Diagne sama jabar man si ma 20 ans ni mu suis non la du conscience président Sonko gars il faut ma conclure live parce que dama live bu gudd la dafa dafa ah dafa une heure de temps gis nga président Sonko wax wax ah, Touré def c'est bien euh, ay la majeure partie du Sénégal 75% de la population ils ont moins de 25 ans wa mais nit ki limu

ñun de ay lex yu ay lex yu yu funki lañu gis sekel man de gisuma sekel waaw Pape Alé wéy wéy j'ai des séquelles j'ai des traumatismes grève de la faim ah boo leen xam nu mu méttee man ngeen may gis ma def sama live rek ngeen yaakaar ne maa ngi ci jàmm yaa ngi ci jàmm sa lex yooyu balaa nga doon def grève de la faim sa lex yi tollu loolu noonu Pape Alé nañu wax dëkk bëgguma la gémmunu bëgguma la gémmunu sa lex yooyu lu mu toll noonu nga naan j'ai de séquelles ban séquelle amuloo benn séquelle yow tey nga gën a tey nga gën a nekk en forme Cheikh Bara Ndiaye gi nii dara jotu ko dara daara lan moo ko jot Cheikh Bara Ndiaye génnul fii bërki dem def fi live am cent xaw ma ñaata personnes di ko seetaan vingt cinq mille personnes di ko seetaan ah mu naan sama papa quatre vingt neuf ans amoon xaw ma dugg na fii génn fii sama yax dëgërul terewul mi ngi ne cocc trente da léegi nag booy bu ñu gisee loolu dañ naan ah kon Sonko dara dalu ko alors que son combat demee mi ngi waaj a dee Li xale la gudel wax ji lu ko guddal lu ko gàttal wax ji lu ko guddal lu ko président Sonko wax len ko deug bo len ko beugé bo len ko beugé wax len ko deug billahi wallahi taala bo len waxu président Sonko deug yàqu ngeen xam nga lan mo dara am ni lañuy def tribunal cour suprême cour constitutionnelle bu len kaawa baaxul patati patata non non concert de casserole non dem leen gunge Ayib Daffé ak a yomb Ngagne Demba Touré booy faalewuñ la Ngagne Demba Touré booy resuñu la booy dinañ dem naan dañuy gunge Ayib Daffé pourquoi ñu koy def yow yaay kan booy dégluwuñ la booy faalewuñ la booy Sonko la ñuy déglu ak Serigne Mountakha jeex na Sénégal ñaari nit lañ fiy dégg Sonko sëñ Mountakha te waxuma waxuma sëñ Mountakha Sonko de Sonko la ñuy njëkk a déglu sëñ Mountakha doog a ñëw Sonko moo ëpp doole sëñ Mountakha ngañ dem ba du yow yaay daw génn réew mi daw Mali woote fi révolution vendredi na ñëpp ñëw ouest Dakar yow nga jaar est dem Mali nga dem Mali génnaat ne dans les plus brefs délais dinañu wax lu ñu wara def gaay di la deggu kat defoko ya tane nak ya tane gaay ndax yow lu bon bon sax di nga ne lundi ni ñëpp and dem euh, euh saay yow waxon nga ni ñi ñew Dakar au moins yow ya len tane ya tane euh, Amadou Ba parce que yow lu bon bon ya nga nan nit ñi genn len sax xex mais Amadou Ba mom dafa ni bu kenn xex <laughs> koku mom nga ka nga ka blendé nga ka doublement blendé moy moy Amadou Ba dafa dofa dofa dofa dof nan ngay nekkee ci réew ñu jàpp sa reli sa leader say leader tas sa parti ah jàpp ñëpp tëj yow sa bopp dañ lay tëj yàgg-yàgg dañ lay tëj 2024 dañ lay tëj Pastef dañ leen di purger <coughs> comme Hitler nu mu def juif yi noonu lañ leen di def yow nga am doole war a utiliser doole pour xeex nga ne bu kenn xeex parce que boo xeexee Macky Sall day yokk ñaari at Pape Alé Niang yow est-ce que ça Nous ñu jiite nous ay kaw-kaw problème nous ay boy town nous ñu nous, boy town guerrier révolutionnaire loi la loi la démocratie la justice <coughs> oh non on n'est pas terroriste on va leur montrer

moom il mérite d'être président après Sonko xeex xeexat la révolutionnaire la guerrier la mais xam nga la moo ko yàq Pape Alé sentimentaliste ak bëgg def lu rafet gis nga boo nekkee ci guerre lu rafet amul ku ko bàyyi mu ne day invité Aly Ngouille Ndiaye ci Dakar Matin ku ko bàyyi mu ne day invité Amadou Ba pré euh, du baax ci ci Dakar Matin ah man boo ma terroriste nga damay contact ça veut dire que da nga da nga ragal kan? Hamas bu len Israël waxe terroriste dañ naan ah merci kon yéen li leen def li leen def yéen ngi koy yek yéen ngi koy yek yéen ngi yek bombe wa yow ñu lay ji terroriste au lieu nga ne effectivement man gatsa gatsa la def dama lay ñuus dama lay nok dama lay terroriste ngay daw nga bàyyi xex makki da len psychologiquement makki sala da len da len da len da len di nax yéen ay terroriste ngeen lu ñu wax rek ngeen ne marche lu ñu wax rek ngeen ne taal fitna fitna fitna bàyyi leen fitna yéen tam ngeen ne waaw waaw ok gis nga ñun bàyyi nañ fitna léegi xool leen ni ñu ngi justice ay ngaaka Pape Alé fan la dëkk damane ne waxuma dégguloo li ma wax dama ne la Pape Alé Niang bu dee bu dee terroriste xam naa bu dee patriote Sénégal bu mu toj Ousmane Sonko mooy premier patriote deuxième patriote mooy Pape Alé Niang parce que non seulement dafa ñeme kër sax amu ko dégg nga aw ma sax kër nee na amu kër appartement boobu xam naa da koy loué parce que xam nga lu tax moo sama genre la du ñu dem ci Macky Sall Macky la di leen wax jaay leen son got kaay ma xotti la terrain léegi ma almadi loolu tax amul kër de Pape Alé li tax amul kër parce que toppul Macky Sall bu toppoon Macky Sall dem nekk APR heure bii mu ngi ak R plus 10 am ci 3 wala 4 mais xam xam nga la mooy catam bu ñu def ay show di teg ay Youssou Ndour ba ma nekkee burki laa ko doon wax yow kii sa ennemi la nga koy defal promotion temps yi la gis ngeen ko mu génn dal Youssou Ndour Pape Alé Niang c'est un idéaliste bu toogee di wax naan day invité amadu Ba premier ministre ci émission yow ñii di suñu ñii woo ñu suñu guerre Amadou Ba woo ñu suñu guerre jàpp suñu daal tëj ko ah jàpp suñu suñu ay militant tëj jàpp suñuy xale rey nga ne da nga leen di jox. plateforme ñu ñëw di am lu ñuy wax ak ñun ñun Aly Ngouille Ndiaye lan la mën a wax ak ñun ci Pape Alé Niang loolu la war a bàyyi Pape ale ak ñoom Ngagne Demba Touré lenn moo leen yàq du ñu ay boy town ñoom ñëpp ay kaw-kaw lañ Birame Souleye kan moo ko gën a nekk kaw-kaw ñoom ñëpp ay kaw-kaw lañ du ñu ay guerrier du ñu ay boy town affaire bi il faut que nga nekk guerrier Ousmane Sonko nag dafa doon def yëfu guerrier jik dem ba ci biir commencé teggi tànkam comme ni ko Birame waxee jënd glace. di calculer di calculer palais présidentiel palais présidentiel wax len ko mu jël calculer yi mu teg waaw wax len ko mu jël euh, waaw wax len ko mu jël palais présidentiel mu tek fële Ousmane Sonko Limu bëgg def wa Pastef li ñu bëgg def buñ ko défé billahi wallahi sala suñu ak mo leen di dal néna leen karma dafa am de yàq baaxul prisonniers yi nga seetaan te yow yaa leen waroon génne génnewul leen Ousmane Sonko ba fi ñuy wax ak yéen moo war a génne prisonniers yi <coughs> tant que moom du génn lu leer laa leen wax ak baaxul surtout jigéen yi ay xale yu jigéen ay La Fleur ay Amidia jigéen senegal place jigéen senegal déjà wóorul wóorul wérul place bu prison place de prison te dañoo am ay doom ay doom yu ndaw ils vont être traumatisés pour la vie nga lu mat ñuy jàpp ngay seetaan Jomaay Faye nan lañ koy jàppee Ousmane Sonko libéré wu ko <coughs> Jomaay Faye nañ ko jàppee Ousmane Sonko bu ko neexoon vous génn ci jour boobu même jour mais Sonko dafa fait non non bu ma xeexee Macky Sall day yokk deux ans mais ne Macky Sall a 100 ans l'objectif c'est de se battre avec Macky contre Macky l'objectif c'est de

avant Macky di choisir Amadou Ba peut-être bu ñu xeexoon du baax mais foofu waroon nañu xeex tuuti sax pas xeex final mais comme tànn na Amadou Ba jeexal na Macky jeexal na lan la ñuy xaar ci combat bi léegi yokk ñaari at fan lay jaar ba yokk ñaari at loolu fan ngeen ko mës a dégg ban dëkk ngeen mës a dégg ñu ne président bi dafa constitution moo ko permettre mu yokk bu fekkee ne ah. peuple bi kontaanul ci moom génn di xeex constitution bi moo ko mais yéen ñii da ngeen yaakaar ñun ay dof la constitution bi li mu wax c'est très bu fekkee ne dëkk dafa nekk en état de beneen dëkk moo ñu song bu ñu beneen dëkk songoon Macky bu ko neexee mu yokk parce que kenn du xalaat ni tal ay élection yow ñu ngi lay attaqué dafa mel ne tey rek ngeen ne Hamas dañu war a organiser élection yow un million de personnes déplacées fan nga fooy jaar ba mais États-Unis wax dal nañ ko dal Nous le président Roosevelt le président bi nga handicapé la woon chez sax la la président guerre deuxième guerre mondiale il mu a le troisième mandat Roosevelt wala ko parce que ci guerre ma xool ma ma defal leen ko léegi ngeen gis weddi gis bokk ci how many how many term terms did Roosevelt serve uh, Roosevelt gis nga waaw moom moom moom rek moo def euh, moom rek moo def trois termes parce que ci guerre lañ nekkoon ci guerre lañ nekkoon mënu ma leen jox détails yi. Macky Sall li mu leen bëgg gëmloo yëfu yéen waa Pastef da ngeen yaakaar na ñun ay dof lañu Amadou Ba da nga yaakaar ne ñun ay dof lañu yow yaay dof bi yow yaay dof bu mag bi parce que boo waxee ne boo xeexee Macky Sall day yokk ñaari at waxoo dëgg waxuloo dëgg dëkk boo ci nekkee. mu am dictature da ngay xex dictature parce que bo xexul dictature dictature bobu moy dess parce que day jël Amadou Ba mu tek fa te Amadou Ba mom moy Macky Sall Amadou Ba nee man su nekk nekkee président Macky dafa melni yow yaay président président buy jalgati <coughs> di tej nit ñi di sonal nit ñi da nga wara jambar jàmbaarloog mom sa constitution dafa non wax ki warul eggali combat mandat da nga wara xex ak mom armée bi jëlé ko fa waye yeen da ngay a sétane di seetaan ba Macky Sall jàpp ñëpp seen guerrier yëpp la jàpp jàpp na këram xurum xaq jàpp Cheikh Omar Diagne ngeen seetaan mu jàpp Jomaay euh, Faye Jomaay Faye bañ koy jàpp 11h au lieu mu xeex mu nekk fa mu jë mu saraxe boppa 11h kenn war ci jàpp nit loi bi moo ko wax bu 9 jotee kenn amatu droit jàpp nit yow ay côté 11h lañ la jàpp sa avocat taxaw ñëpp taxaw nga koy filmé au lieu nga xeex nga ragal nga ragal xeex moo tax tey def nga 8 mois ci prison ku ragal dee mooy dee. tey jomaay bu doron waji dor dóor mu metti boum waji dor ko mu nacc est-ce que prison la jëm dedet hôpital la jëm c'est vrai que dina am lu ko metti hôpital la jëm mu def bës ñëpp gis ko Amérique gis ko ne ah ki de dañ ko bëggon japp te waruñu ko japp après da ngay ñibbi sa kër bo ragalé dé bo ragalul dund Sonko limu mu bu génnewul prisonnier yi nekk ci kasso bi te moom moo tax ñu dugg

ko xam ne fo dem Sonko namonal Sonko namala la kay boko baye mu génn dëkk bi day tak day tak boko baye mu genn ñeppay dem seeti ko Sonko namoon manifestation yi commencé boko ko parrainage gagne bu tour wax nako boko boo parrainage nit ñi dañuy parti bi day dundaat manifestation yi commencé du len jox parrainage du génne Sonko wa léegi qu'est-ce que vous allez faire what's next da ngeen di tok rek dem cour suprême cour suprême du teel a joxe décision day bay ba décembre fin décembre muy doog wax wa légui dem len du len sax bay ngeen out parrainage wala bu len koy bay ce sera trop tard après ngeen tok di dundé yaakaar way nañu xaar Badio kamar yeen xam ngeen ne Badio kamar bo len fa démé do len am ndam do len am ndam Ousmane Sonko bokku ci liste bi dindi nañ Touba kenn du fa voter mais léegi yéen yéen ñaan preuve ngeen bëgg pour wan leen ne du élection moo tax ngeen di jël nguur il faut que ngeen libérer ko ba pare bu libérer ñu libérer prisonniers yëpp rapport de force loolu bu amul kenn du génn nit dof boo leen gisee mu génn c'est parce que doonoon waaj a téye loolu lii man maa leen ko wax man Mister Shake nit dof xam lu tax ñu bàyyi ko da doon waaj a ak kerso lay Macky Sall du du fecc ci yàlla naa dee Macky Sall amul yërmande amul négocier lépp lu mu def rek intérêt la lépp li tax mu bàyyi nit dox ci intérêt la moo tax mu bàyyi peut-être pour pour gëmloo nit ngi waaj a bàyyi Sonko moo mu bàyyi nit dof wala nit dof mi ngi waaj dee feebar na te loolu ñu wax leen ko ñu bañ leen ko wax dem leen dem leen kër nit dof ngeen laaj ko lan moo la daal dem leen mois de prison ku ko def. defe naa def na dix mille est ce que jàpp ñu ko jaan xaw ku ko def Sénégal xaw ma camp nga nekk xaw ma rëbës nga nekk te moom est ce que nekkuloon rëbës la munoo nekk Sénégal dix mois prison wér c' est nga nekk cent personnes li ngay noyyi baaxul douche yi salte na li ngay lekk baaxul te bu la neexee mën nañ ci def dara parce que yow nit dof nga pour nga dee am na ku bind et les autres. xale yi ñu xamul les anonymes xale yi ñu xamul yoo xam ne dool leen dóor bal ci tànk terewul dugal nañ leen ci prison ñu am ay góob yu métti temps yi dañoo wagga ñoom ñëpp a wagga wagga parce que toog nañu cinq jours robinet tijji du ñu sangu lekku lekk seen lekk baaxul une fois la ñuy gis une heure de temps la ñuy gis euh, euh, euh, jant bi sa bët day dem ba yàqu man suñu koñ am na ko fa daan jaay yàmba day dugg kaso génn dugg kaso génn yàmba mais léegi boo ko boo ko gisee bët yi yàqu na parce que lëndëm bi ngay nekk chaque jour sa bët day dem ba yàqu c'est l'enfer dégg ngeen Boubacar Seye ba mu duggee prison jabet la fa jëlee te moom yàggu fi sax 3 mois la fa def xamu 4 mois jëlee fa jabet doo entraînement doo lekk lu baax man de prison rëbës su ma fa defoon un mois yàqu naa man loolu daf maa leer parce que man damay bëgg chaque deux jours may entraîné te booy entraîné dafa am loo war a lekk mais ceebu jën yu bon yi ñuy jox ah. supu kàjje yi bon yi lekkuloo légume lekkuloo fruit mais loolu àq la àq la léegi Ousmane ko moom lenn moo ko yàq dafa jàpp ne révolution il faut que mu am ay sacrifice c'est pas vrai révolution il faut que mu am sacrifice c'est pas c'est pas sacrifice dafa am sacrifice yoo xam ne kenn mënu ko il faut nga def par exemple boo nee génne leen marche ñu génn marche Macky Sall tiire rey ay nit loolu la ñuy wax sacrifice waaye ñu jàpp say nit nga seetaan leen loolu du sacrifice loolu àq la te danga ko daan def nga koy def ñu koy def nit ngay seetaan pendant dix mois bu la dalee nag bu mu la bett moo dal Sonko te fi may wax ak yéen moo leen mën a génne waaye kenn xamul lan moo tax Ousmane Sonko buggul génne prisonnier lan moo tax Ousmane Sonko fi mu nekk. munul wax li mu bind keroog Facebook lan moo tax mu ragal jaar ci digg bi mu toj yax bi bul wax résister ci dictature lañ nekk dafa c'est bien parce que trois mois ñu ngi doon xaar lu mel noonu mais doyul doyul Sonko da nga war a wax yéen waa Pastef yéen waa Sénégal ñetti weer moo des Sénégal defaru ba faw wala mu yàqu ba faw desul 4 mois de maa ngi 4 mois desul 4 mois 3 mois moo 3 mois 10 jours moo 3 mois 10 jours moo parce que nous sommes ci le 22 9 jours moo des octobre novembre décembre janvier janvier bu jotee ci la ñuy xam ne Sonko bokkul man du ma wax na de janvier bu jotee. dara changé wu Sonko nekk ci kaso bi ci la ñuy xam ne Sonko bokkul ci la baajo Camara di génn liste ñuy bokk di nga dégg ñu ne Khalifa bokk di nga dégg ñu ne la ah, Karim Wade xëy na bokk na ana kooku est-ce bokk na yow nan ngay bokk ci election mu def trois mois ba pare mënoo dugg mënoo goo dugg ci réew mi <laughs> mais c'est pas possible li xew Sénégal kenn xamul lan la billaay Sénégal mooy dëkku jaam nan ngay bokkee ñu ne la bokk nga ci élection mu jaral la nga sacrifier Sonko yow ci wàllu yéen ak yow askan bi yéen a boole ba gagné assemblée waaye bëgg lu neex Karim Wade bëgg lu neex ab Ablaye Wade ngeen trahir Sonko waaye yéen trahison boobu lan la leen jëriñ yow bu dee danga ne dañ ne bokk nga Karim Wade mais lu tax mënoo dugg senegal ñetti weer a des novembre décembre janvier yow nga ne candidat nga président te mënuloo dugg ci réew mi Khalifa Sall nan ngay nekkee candidat nga war a dem Fatick bu bloqué sa sa sa sa sa sa sa sa sa yëf quatre heures de temps ah Sonko ñetti weer moo la des ñetti balaa may dee ñu quatre mois du quatre mois parce que février février mooy élection yi mais bu ñu xasee wax ñi bokk foofu la dëkk bi day tàkk day tàkk parce que ñii ñi ngi ut parrainage ñii ñi ngi campagne tàkk day tàkk egsi nañu waa léegi

wa legui ñetti wër yi ñetti wër nga ne da ngay xaar cour suprême té cour suprême limuy wax c'est clair juge sabasi limu def du yoon Sonko dindi nañ ko dindi nañ ko dindi nañ ko affaire Mame Mbaye Niang ngeen dé Macky Sall du jaar ci mambay ñaan Macky Sall xas na dindi Sonko ci ci ci ci lii fi la koy japp du dem parce que mambay ñaan Niang dof la yëfu tiaxan la même li li yëfu tiaxan la. mais bu Mame Mbaye Niang moo gën a nekk lëfu caaxaan loolu day gën a merloo Sénégal yi Macky Sall bu perte temps di dugal Mame fi mu ko jàpp la ko jàpp moo tax mu jël Antoine Diop ne ko merci mission accomplie dàq ko dafa dàq Antoine Diop mu daq Ismaïla Madior justice merci mission accomplie li ñu bëggoon am nañ ko tas nañu Pastef dindi nañ Sonko ci élection ci liste yi ah Sonko

Amadou Ba bàyyi leen jàmbur c'est vrai que ngaaka la moom ngaaka blende mooy Amadou Ba parce que en tant que intellectuel nga ne doo xeex parce que boo xeexee président bi day yokk man man argument boobu man vraiment man damaa yërëm damaa yërëm Sénégal parce que comme ni mu la ko waxee ay xale lañ ndeysaan xale amul lu dul yaakaar xale vingt cinq ans xamul dara dafa naan Pape Alé moo xam Amadou Ba moo xam Sonko moo xam sëñ mu Mountakha moo xam kon liñ ma wax loolu laay gëm am Pape Alé Niang ñëpp ko wóolu Cheikh Bara Ndiaye ñëpp ko wóolu waaye Cheikh Bara bu waxul lu mu war wax man dama koy dal mooy sama idole de waaye ba mu génnee keroog fii di wax Cheikh Ahmad Cheikh sëñ euh, Ahmad ba ma nekkee ci kaso ba ah da nga maa seet si xaw ma lan dugg na fii ngeen ne ma xaw ma lan tàndarma bi ba ma ko. Ah, non non Ben xasaay seigne Tuubaa bo xamné ne musuma ko jàng bi dañ boko jangé boko jangé si tecc prison wala bu la féké prison dañ lay Cheikh Bara Ndiaye mo suma idole waye bu mu toogee seigne Ahmadou sam di wax waxu waxu bëgg ñu né qui boko taré do dugg kesso mais ñi ku ñu yapp mbacké mbacké kañ lañu yapp kan lañu yapp xasaayit boo xam ne boo ko taree doo dugg kaso kon yéen bugg leen koo génn loolu kay mooy preuve Cheikh Bara Ndiaye moo toog ak sëñ Abdou Samad mu ne dafa am benn xasaayit bu ñu ko jox li tax mu génn xasaayit bi lañ ko jox moom xasaayit bi mu ngi ko doon jàng quarante fois par jour quarante fois par jour la ko doon jàng ba mu ko jàngee quarante fois par jour quarantième jour ba ci la ko juge Mamadou Seck woo jox ko liberté provisoire waaye liberté provisoire bi taxul nga génn parce que procureur dafa interjeté appel ñu téye la kon kay xasaayit bi génnewu la moom nee na xasaayit bi moo ko génne waaw ma ne xanaa Abdou Baara Dolli xamuloon ne sa maam dafa bind xasaayit boo xam ne boo ko taree doo dugg ka doo dugg kaso maam Baara Dolli Macky Sall tëj na ko fi un mois xaw ma xanaa sëñ Assane Mbacke xamuloon ne maamam. daf ko am na xasaayit boo xam ne boo ko taree boo dugg boo nekkee kaso da ngay génn sëñ Assane Mbacké xam nga ko moom def na huit mois xaw ma waaw mais Nefertiti mais ñun senegal mais yàlla mënu ko mbug mënuñu mbugal benn yoon mu def ko nu mu defoon yonent yàlla noot mu taal Sénégal nit ñu noppalu fan ngeen mës dégg benn saar boo xam ne boo ko taree doo ngay génn kaso mais nii la ñuy développé Sénégal. mooy sama idole de waaye dama kaa dal waa léegi bu dee dëgg la néfertiti bu dee dëgg la <laughs> ay ay ay ay oh yàlla nañu yàlla dimbal bu dee dëgg la Cheikh Bara nee na xamu ko woon Cheikh Ahmadou Samad xamu ko woon waaye Cheikh Bara ba mu koy wax Cheikh Ahmadou Samad mi ngi toog kon kay léegi Cheikh Samad xam na xasaayit bi Cheikh Bara xam na bi sëñ Moutakha bu ko woon vous ko ko xam ko waa léegi xasaayit boobu ko jël ñu jox ko Sonko mu ko kon Sonko kay preuve bi ñu Sonko parce que buñu bëggoon Sonko génn dañuy jël bi jox 40 fois par jour Sonko xel bi neex yoon la koy jour si suba si kon dafa wara bàyyi leen seen xel yi suñu xel yi ngeen di fooye lii moo tax tubaab yi raw ñu ñun tubaab yi trois cents ans lañ ñu rawee gis nga li ñuy mentalité bi ñu am moom la tubaab yi amoon mille sept cent quatre-vingt-neuf bi ngañ leen bu doro doon wax église bi nii la leen doon naxee yàlla nee na yonent bi nee na au nom du Père du Fils et du Saint et du Saint-Esprit et de la Sainte Mère on est de la grand-mère on est au nom du tante de la tante ah de l'oncle loolu lañ leen doon naxee mille ñom ñu nek seen badaxal ma l'Église. seen église yu rafet am seen château di noos jàpp ci xalé yi di napaji di di violer ci boy gis ngeen temps église ngeen chrétien ci yu di di di di au nom du père du au du fils au nom de 1789 <laughs> di lañ leen doon naxé ñun trois tuba bi ans lañu ñu yi buy génné nit kasso fan ngeen ko dégg waa ñoom xanaa amuñu xasaay buy développé réew wala xasaay buy tere nit dugg ci gaal gi dugg ci mbëkkit balaa ñu naan la boo demee ci safara ngay jëm comme sëñ Touba bind na lépp kon yéen seen seen maam li mu li mu bind li mu bind jéemu leen ko sax gëstu boo demee am na xasaay buy développé Sénégal waaye taluñu ko ndax jéeg yi taluñu ko ngir ngir jesneer taluñu ko ngir kat kat taluñu ko ngir euh, euh, euh, terrain almadi ni ko Almadi sawaay waxee jàpp ci xale yi di nappaaje billaay mbàkke mbàkke yi yéen a gàdd suñu àq billaay man waxuma si si mbàkke mbàkke yi gàdd ngeen suñu àq billaahi sonn ngeen sonnal ngeen ñu fatt ngeen ñu barki rasulaay boo leen sàgganee li dal euh, église 1789 moo leen di dal ñuy wax naa ngeen di jël ay baay faal ñuy jàpp nit ñi di dóor di toj kër nit ñi di dóor nit ñi di sàcc nit ñi billahi Sénégal du dëkk président Sonko nit ñëwaat ci moom parce que Ali lépp lu ñuy wax moom mooy moom mooy moom mooy Ali Kalek bi kenn ñemeewu ko wax dëgg li ngeen di li ngeen di dégg si Mister Shake rek ngeen koy déggee suñu waaj il faut que ñu wax ko dëgg suñu waaj dañ koy wax dëgg waa Pastef bu dee da ngeen bëgg a saraxe Sénégal wax leen ñu ko mënu leen làqatu de ñetti weer a des <laughs> billahi barke rasulaay defe li ma doon wax 2024 euh, euh, ku ko fekkewul fekkewoo dara yàlla nañ ko fekkee ñetti weer yii di ñëw yal naa yàlla fexe ba ma dund ko man lii bugguma kenn nettali moom Badio Camara décision bugguma kenn nettali ma ko yal naa ko fekkee yéen ñii yàlla ngeen ko fekkee lii wax nañ dëgg jar naa sax bañ a xeex que ñoom daruñoo xeex jar naa bañ a pour ñu xool Pastef lan la ñu nar a def man je suis tellement pour xam Ousmane Sonko fu mu dara jëmee ak ñun <laughs> déwén yi dama bëgg xam Pastef ak Sonko fan la ñuy jëm ak weer yii di ñëw yàlla nañ ko fekkee Bah Diakhomara joxe na décision Ousmane Sonko bokkoo yaa ngi ci kaso ba ba léegi ban lay la ñu nar Pastef ndara joxal te dañoo aay nefetiti waa Pastef dañoo aay Ousmane Sonko dafa aay dafa aaya aaya aaya aay waaye bi pa on parce barke Rasulullaay amul gunge Macky Sall man ba muy wax ne fa du seetaanaat nga seetaanaat nga sama laay demal nga seetaanaat ko le 8 naa le 8 la woon le 8 mars ne fa demal nga seetaanaat sama laay Sonko ba muy wax. inna lazina amanoo wa amilu saalihaati wata waataw Macky Sall lii Macky Sall laa dina xam ne dëkk bi ma naan waa Sonko déjà yow lan nga fiy def 6 heures nga ñëw naan dangay def déclaration yow ñun ñu ngi guerre. ñu ngi jekku seetaan nga ko demal nga seetaanaat mane ma ne yow yow kan moo la génn loo booy wër nañu sa euh, euh, Samba Diéry Diallo ñoom caat yàllamaan ñoom ñëpp ñu ngi fa Macky Sall mi ngi waaja a dee le 3 mars dem dem ngeen seetaanaat sama live ma ne Sonko waaye yow yow fan nga jëm ak ñun Sonko di layam layam yi di wër-wëral ma ne saa waay gi hey kii fu mu nar a ñun waxuñu ko de Sonko lu muy wax nii. Macky Sall li mu wax boy genn way Macky Sall il faut que ñu jàmbaarloog moom mom xali wax way ya, ñëpp am espoir mu ko commencé di wax di ñu mocc di ñu mocc dañ koy gungé ba 2024 ma ne la illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye ya, bi ba le janvier Sonko barke rasulullah mënuloo fi genn discours wala post Facebook bay meuna convaincre nit ñi kene Badio kamara bàyyi ne la bokkoo nga bëgg ñu expliquer na lu ñu loolu dañ ko war a nangu loolu moom il faut mu leer ci bopp président Sonko man waxuma ay Amadou Ba man ay Amadou Ba man waxuma leen xam nga laay bëri lan moo leen dañoo ragal Sonko Ousmane Tounkara nee na Ousmane ndigal Sonko bu di waxee na Macky am troisième mandat sax dañ koy nangu loolu yaa ko wax man waxuma loolu président Sonko ñu ngi xaar 29 janvier. le 30 janvier le 31 janvier Je ne sais pas lay prononcé ne ñu xaar lan ngay wax wala lan la Voilà Ba wax wala sëgëm yow sëpp lépp lay façon baratine la ñuy pour nous nous convaincre nous leen nous convaincre wala Sonko bu dem jébbalu ci moo fi am ndax yow doo leen doo leen ñu perdloo suñu temps sans booy dee ñu tëj 2000 personnes yow sa bop ñu tej la nga nangu ko desul lu dul pour nga genn yow nga ne da ngay des ci prison bi au nom de quoi ñu ne la bokkuloo ci élection yi nga nangu ko pourquoi parce que ne nga bo xexé dañuy dàq élection yi wa léegi yow bokkutoo da nga ne bo xexé dañuy dàq élection yi waa léegi Badio Camara nee na bokkoo bu boobaa qu'est-ce que tu vas faire what you gonna do mënu leen fi indi benn benn benn lay dama leen di préparer dañoo aay Pastef ñoo dàqa lay kuy lay li tax ñu bëgg a trouver naan ak ko ñoo aay laa ilaha illallah naxaate nelawal nit waaye léegi activiste yëpp yow na Mollah Morgun yow na Ousmane Tounkara <laughs> yow na

pii la ñuy ànd ak Pastef ba faw wala ñu bàyyi Pastef ba faw boo leen jébbaloo Pastef yéen seen affaire la boo leen di waxee focus 2024 focus 2024 waaw on va dina dinañu focus le temps n'attend pas mais Khady Diop c'est trop ñetti weer a des buñ doon xeex heure bi la xeex yow nga yow juge jox la dëgg nga dem ñu ne la duñ la jox boo doon xeexee heure bi ngay xeex.

libérez-moi ñu xeex ak Macky Sall comme ni ko Gagny Demba Touré waxee libérez-moi libérez-moi bi nag xam nga lan moo koy indi man maa leen jox ndigal chaque trois jours dugal leen marché bu préfet bi bañee génn leen xeex leen cocktail molotov leen jëppeet na dëkk bi takk sànnante xeer ñu wan Macky Sall ne kaw bi ngay bañ day am na na dàq élection yi on s'en fiche waaye balaa nga ne naam day fekk yaa nga fa. balaa ngay bokk ci élection dañ fekk nga génn yow nga nekk ci prison ci ci ennemi bi gën a bon kii la gën a bañ ci àdduna moo la téye nga ne da ngay bokk ci élection mais yow yow ya bàyyi sa xel bi ngay foowe nee naa leen dëmm bu tijji jardin d'enfant boo fa yóbboo sa doom bu deewee yaa ko rey Ousmane Sonko ci ay loxo dëmm nga nekk ci ay loxo nooxoon tant que génnuloo waxuma la bokk ci élection yi sa sa bakkan mi ngi ci xotti gerte joxeel ndigal bi boo yaakaaree ne xale Sénégal yi dañuy génn yow xam nga ne duñu génn pourquoi ñuy génn 400 booy génn nañu premier euh, euh, euh, diggante le premier le le 10 juin Antoine Diome jàpp leen dugal leen ba pare Antoine il a eu le culot toog man maa toog di ko seetaan mu ne jàpp naa 410 booy maa toog seetaan Antoine Diome wax ko ñuy jàpp di jàpp di jàpp jàpp ay maire ah jàpp ay ay ay ay Fadilou Keita maire Parcelles Assainies lan la dafa jàpp. Bilal Diatta wax Sonko ne waroon wax loolu Bilal Diatta dafa ne Marième Faye Sall boo fi ñëwee di yónni ni dinaa la dóor bal Sonko bind poste ah attention dañu xool li ñuy wax waruñu wax loolu ah Macky Sall ne ah ah ok kon kay war nañ mën jàpp Bilal Diatta ñu dem jàpp Bilal Diatta dugal jàpp may mun a jéey Sonko taxaw xool xool géej ñuy jàpp di jàpp ay maire maire Sow jàpp Sangalkam ba léegi dégg naa dem na transhumé moo yey transhumé moyen transhumé parce que yow nga japp nga xeexal nit ñu japp Branco ah yow nga fat Branco moy maître papso, euh, met papso, bu sàngal kam xawma ah ñu dugg këram yàqata nday kër gi yëpp Sonko waxul kenn waxul ñu jël ko ne ko coppet yob ñuy japp nit ñi di japp nit ñi Sonko tok rek xol gi mais yow affaire bi day dem ba yow dalay jaxal mais yow da nga nan mais est-ce que passé bokku ci système nan ngay toogee gis sa organisation ñukoy détruire chaque jour ko détruire

foofu nan la tudd Sébikotane tànn na mais Rebeuss bu ñu la fa yóbboo dee nga Ousmane Dia dafa dee ci ci prison Mbour bakken dafa foor deux mille personnes kenn waru leen sacrifier sacrifice bu ñu koy wax ci révolution du jàpp mooy nga génn ci xeex ci terrain bi nga nekk martyr ñu dóor la bal nga dee loolu d'accord nañ mais ngay seetaan ñu jàpp Jomaay Faye jàpp euh, Fadilou Keita jàpp Ndongo Diop da ngay fàtte sax man ñu bëri fàtte naa leen ay neyleer ah ah ay chroniqueur ay neyleer ñoo xam ne suñu yoon nekku ay père de famille amuñu santé amuñu dara nga toog seetaan ñu leen di sacrifier ngay xool géej Birame Souleye bañ ko jàppee sax Sonko waxu ci waxu ci sax waxu ci sax xaw ma daf ko jéppi woon ndax li mu wax euh, euh, Ouattara ba pare génn di di di baalu mais même bu defee erreur da ko war a soutenir Sonko bindu sax post wax libéré leen euh, Birame Souleye mais tey moom la jàpp. moom la ñu jàpp wax leen dëgg Sonko na joxe ndiggal bu leer na joxe ñetti weer a des ñu ligal bu leer mooy luy jot jot na luy jot jot na xale yi du ñu génn tànk joxoo leen ndigal bu leer waaye boo demee ci Pape Alé nga ne déglu leen yaa ko wax yaa ne déglu leen mobilisez-vous mais déglu leen mais dañ lay déglu. tey nga dem su Facebook nga ne résister leen man lii rek laa mën def grève de la rek laa mën def mais non non je suis pas d' du grève de la faim yow ndigal nga moo mooy sa force xale yàgg nañ la ko ndigal la ñuy xaar billaahi wallaahi taalaahi booy Sénégal yëpp ndigal la ñuy xaar ci Sonko waaye Sonko dafa ragal joxe ndigal parce que dafa jàpp ne bu joxe ndigal Macky da koy rey or c' bu joxewul ndigal la ko makki di rey mais Sonko dafa jàpp ne bu joxee ndigal Macky da koy rey parce que danaan ko yow yaa taal réew boo joxewul ndigal da lay rey yow tu n'as rien boo bëggee sauver sa bopp nga sauver Anna Diamanka parce que Mame Mbaye Niang dina nangu sa kër dina toroxal Anna Diamanka exemple bi mu leen jox démb war na leen doy góor góor la war a doon waroo nekk góor sa moroomu góor dugg sa biir kër 9 heures terroriser sa famille. cent personne ñoo dugg kër Sonko di seet Branco man Sonko ku dina la loolu moo ma gën a naqar li ma nekk ci principal kaso yëpp li ma gën a naqar mooy Macky Sall dafa def violation domicile dugg sama kër fekk fa Anna Diamanka xani kepp neuf heures ci guddi nga dugg sama kër ak cent góor cent góor dugg sa kër di xool sa jabar am na ci parce que góor Sénégal yi dañoo doy waar am na ñoo xam ne dañu xool si jabar ko xool xamuñu san yoon lan la sol boo demee dugg na mu ngi si pyjama parce que 9h bu dugg sama kër jabar loolu man fu ma ko Macky Sall defoon duma ma ko ko baal maam doole soo ko am du ma ko baal ci saa si laay kattan day réew mi góor góor la war a doon daal waroon nangu ñuy ñuy ñuy dugg sa kër à neuf ay boo ko defoon américain xëy na xëy na américain moom dafa fonk famille président Sonko wax leen ko deug wax leen ko deug bo leen ko waxul deug dina dé Anna jamanka dina torox 2024 dinañ ko génne cité kër góor gi barke sollaay wax leen ko dëgg gars yi ngeen baal ma temps yi sama xol sama xol dafa juk sama xol dafa juk il faut que mu jël responsabilité ñetti weer bu bëggé sauver Sénégal sauver Afrique nit da ngay nangu sa destin bo waré dé nga dee xool leen Thomas Sankara dañ nako yow sa way dina la coup détaalé mu ne kon ne dina ma rey parce que man sama xarit la te wóolu na nit da ngay rag dangay ngay sa destin sa destin bu dee da nga war a libérer Sénégal da war a libere Sénégal mais waroo bàyyi Sénégal ci loxo Amadou Ba ak ay loxo Guinée ak ay loxo Mbakke Mbakke mu ndar ñu ndar fi nekkat cinquante ans ba pare nga bëgg ko jiiñ xale yi di wax ne xale yi ñoo génn xale yi ndigal la ñuy xaar ndigal bu leer résister rek dafa yomb bindal sa face page Facebook def leen ay marche tant que ma bu dara set bii paa bu ñu génnee loolu nga waxoon na nañu xeex te tànk jëlewul ci Macky Sall loolu nga war a joxe su may dee ma dee looy tu n'as rien à perdre tu es déjà mort ci ay loxo dëmb nga nekk doo génn duñ la bàyyi duñ la bàyyi boo doon def grève la faim ba dee duñ la bàyyi ci ay loxo dëmm nga nekk Marème Faye Sall du la bàyyi Moustapha Diakhaté du la bàyyi Mamour Diallo du la bàyyi Mame Mbaye du la bàyyi yaa mën a libérer prisonniers yi yaa mën a libérer sa bopp trois mois moo des joxeel ndigal marche tant que génnu ma bu dara set boo xasee génn nag loolooy wane ne gañe doole boobu moom ngay continuer doo amul dellu ginnaaw de amul génn résidence surveillée de déedéet boo xasee génn dañuy génn dañuy continuer marche Macky Sall di nga ñu abal wala doo ñu abal di nga bàyyi prisonnier wala doo bàyyi prisonnier bàyyiwuma prisonnier yi la woon fa woon <clears throat> cocktail molotov terre bi ñu katta ndayam toto yi ñu katta nday toto yi Auchan yi kenn du leen jàngal ñun xam na ni ñuy xeexee Casamance fépp yëngut Macky di nga bàyyi prisonnier yi wala dama bàyyi si bàyyi naa prisonnier yi yamu fa de ah bàyyi nga prisonnier yi waa léegi damay bokk ci élection yi wala du bokk non doo bokk ah duma bokk xaaral ñu yi di katta nday toto di taal Macky di rey France 24 di wane ñuy rey ñuy xeex xeex bi tànn mu guerre la ñu woo Macky de dellu ginnaaw waa léegi bokk ngeen Amadou Ba sama yoon nekk ci ah man xeexal naa la waaye <laughs> saay waaw ah, population bi dafa am doole ah léegi bokk nañu élection yi dina jaar yoon wala du jaar yoon kan ma koy organiser saa waay du ko organiser de ministre de l' intérieur déedéet du ko organiser dañuy ut personnalité neutre mais loolu en trois mois mën nga ko def. waaye loolu yëpp boo ko ba ba janvier en trois nan la ñuy changer ministre de l'intérieur dugalaat Sonko ci ci liste mais loolu ça prend du temps moo tax xeex bi léegi la war a doon bu Macky d'accord loolu yëpp ñu dem ci ay élection Sonko gagné nekk président Macky Sall nekk si jàmm bu ko n'angoul. ñu xeex ak moom ñu xeex ak moom ba élection yi ñu dàq ko ñu continuer di xeex di taal guérilla Casamance ñuy kattanday réew mi Macky di rey di tëj ñuy kattanday réew mi jàmm amuñu jàmm kenn du am jàmm Macky Mbacké Mbacké duñu am jàmm kenn du am jàmm bu ndaree jël un an comme Guinée ñu topp ci rek deux ans ñu topp ci rek waaye au moins du dañ nekk ay gor waaye nga toog dem jébbal ay Guinée nekk ci réew mi ñoom matti trois di ñu ñaawal chaque jour loolu ngeen bëgg Sonko continuer nekk ci kaso ba pare di ñu xutba di wax yàlla neena yonent bi neena inna lizina amuno wa min amilu salihati watawaato bil haqq xaqi watawaato bil tandarm tuf tuf tuf tuf tuf waaw dina bax waaw waaw Nelson Mandela def na 27 ans ci prison Sonko dina génn kala do way way 2025 lay génn 2026 2027 Sonko bu xexul il est mort on est foutu voilà gars sama batterie sax signaler te dama wara dem liguey suba inshallah ñu continue waxtan merci lolou dal moy message bi bàyyi leen Amadou Ba. bàyyi leen waa Pastef Ali Kalidou Sonko la ndigal du grève de la faim ndigal bi na ko joxe voilà merci ba suba incha allah.